bango la tanga fanga fa ko sumu ta tota ki covid 19 guliji yimɓe ka hoore leydi woni ko ƴetti ndu pikiiru coronavirus coronavirus noon ko gonga annda ɓale annda dane annda paykum annda mawɗo wari africans ɓe boyi ka hoore leydi sabu noon ala lekki kono kibaruuji welɗi di woni ndu hebi haray pikiiru bayna fof ñetti o vaccin ko kale yore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 li gis Banjul neexuma te luma na naqari man dinaa ko wax suñu réew toll na foo xam ne ku ko sànni mbaat faj jàpp naa biisi naa biisi boo xam ne jéggi na dayo it's 1:26 am and I have to do this ndax our country is a crossroad suñu réew toll na foo xam ne ku ko sànni mbaat mu toj election season lañ wax I want to do this and I really want to do this it's about time, Noah. wax tey last day nomination ci Gambia ñu ngi nomination process ñu ngi bàyyi xel ñu setan. suma timbi bi ground bi all these days including today as we speak ñu set up dama decide pour demagum def some analysis and talk about the current situation Linga nga xam gis Banjul ma ci kanam dinaa lagga join gaay pour ñu waxtaan waaye man li ma gis Banjul neexuma te lu ma naqari dinaa ko wax nomination lañ wax tànn na ñan ñoo war a jiite suñu réew kenn moo ko mun a nekk waaye waxtu bu nekk rek ma wax leen ko ne du waaye di uyoo daf koy nuru ci tur bi ci jikko ji ci jëmma ji ak ci melo bi ahankay kuy oote gambiyan danga war a nduru gambiyan te nekk doomi réew du waxantu rekk ci làmmeñ dafa war a nekk ci jëfin bi tamit ñu ngi caaxaane loo xam ne nag jarta caaxaane te man loolu laa gis Banjul te neexuma ma ne leen ay couple of months ago laa fi jógee def show ma def analysis wax leen presidential candidate si ñaata nit ñoo jóg taxaw ne dañ bëgg a nekk presidential candidate golo yeeg gong yeeg buubu yeeg amin am am am borom maxama yeeg ñu amut maxaama képp koo gis ci réew mi rek foog na ne yelloo na nekk doomi réew nekk njiiti réew raada ma ne gis nga nit ku nekk da nga war a peese sa bopp ba xam sa poids mbokk yi ba tey every time ma wax leen ko waxtu bu nekk ma wax leen ko ne leen waxtu bu nekk ma wax leen ko ne am eh, bot en wut way xamna na lu bop antan nit ku nek war nga xam yow lan moy sa position at every point in your life nak, war nga xam lan moy sa position nga pesse sa bop be xam sa poids ndax this is very important So ko defute di nga mujjee lor sa bop Gambia it's about time ñu xam xamé ragné xamné certain things are not a joke wala du luñ wara a dem ci nguur gi the same thing moo nekk di happen luñ dee def ci suñ kër yi luñ dee def ci suñ yi luñ def ci suñ biir néeg yi replicate everywhere fuñ nekk loolu la doxal suñ nekkee eh, ci mbedd eh, suñ town ci bunti néeg bi rek képp ku ci eh, kër gi we treat them the same way we act the same way we have the same mentality di xalaat the same way that's what we do suñ génnee ci bunti kër gi rek we do the same thing ci mbedd mi lañ indi ma ne suñ demee ci marché yi loolu lañ faa yóbbu suñ demee ci liggéeykaay loolu lañ faa yóbbu it doesn't matter where it is dama yàggaleen ko waxit gambiyan si ne leen yàlla suñu indiloon yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam wala mu indil ñu yonent yàlla jesus esa def ko muy suñ président fee weccu jël ñi nga xam ne ñooy am sahabaam yi wala yeneen profet yëpp ñu nekk ministaam yi fee ñun gambiyan si wecci wuñ suñ xol yi ak suñ xalaat yeeg jikko yi réew mi du dem bi ma ko defee nag di def lu tax Gambia du dem soo ay at di ko wax su ma waxee ñu ne danga bañ réew mi danga négatif danga li li maa wax ñu ngi ko gis benn benn at yi yëpp nag almost getting to ten years I've been doing li ma gis Banjul li tax Gambia du dem show several years ñu ne dama négatif a lot of people look at me with that eye Gambia moo du dem ten fee wécci wuñ jikko yee xel yee xalaat yi du si wax nag lip service ku toog wax ku toog wax everybody will see the right thing and agree ne lii mooy dëgg ba pare ku nekk jóg def lu la neex ku nekk selfish ku nekk toppa sa boppa you have now seen it we are seeing it true colors are coming out barki démboo ndax démba a few hours ago la president bi jógee am address at the buffer zone after his nomination rally and he said ne fan yi yëpp mu ngi am meeting with opposition leaders they are constructing Nuge Nyo, Nuge form alliances and becoming part of him. Why did they all join? These are things that we need to have thought about. One of the last videos yi ma def wax naa leen ko askan bi ma ne leen am na ñoo ne ñu ngi fii ñu mel ni Jaabi bi Ibrahima Rada ne dafa form National Jama Party amin koo xam ne ci président Barrow la nekkoon bi three years jot na jógee ñu ne three years jot na moom mu jóg ne form na am five years am am ah, jotagul whatever five years for peace and national development ñu ne ñoom ñooy jàppale président baro ci development agenda bi that same Ibrahim Soriba mu ne dafa jàppoo ak waa NPP ba tax mu génn beddeeku ne foom na parti boppam ñu naan déeta waaye mu génn si loolu ñu ne fo dellu si waat na NPP yii lañ war a bàyyi lañ war a bàyyi ci réew mi that same day ma def loolu wax naa leen ci Essa Mbaye Fall ne leen dugga ci na ci géew bi personally I was disappointed and I'm still disappointed with Essa personally I was disappointed and I'm still disappointed with Essa am am na ma xamami yes ndax jàng na yes ndax am na intellectual capacity ak pedigree bi yes is he presidential material yes the timing was very wrong the timing was very wrong. bi ma defee analysis yi I said it his timing is very wrong. do ñëw jël nit ñi ñu ne TRRC ñu jël ay millions and millions and millions yi dalasi koppari réew mi dugal ko ci dara amin ngeen nekk ci ñaari at ngeen yaay jàppale askan bi yaay jàppale réew mi ñu dem ba tollu fi nii nga bugg a ñëw xajamal loolu the TRRC is gonna go down the drain it's unfortunate for the victims and everybody else but that is the reality because the integrity of the TRRC has just been compromised it doesn't matter ndax jeexal nga sa liggéey ndax joxe nga amin dossier li nga war def yëpp timing bi is very wrong you could have come into the game at a later time at a later time you came in it's very hard for folks to believe that you are actually genuine when you came to take up the TRRC and that you were not just getting into it because of this. poor use Gambians, use the TRRC poor def li And gis nañ président Adama Baromuge used ngi use every single day ah to his advantage. Gis wa APRC you go downplay for the longest time for Tombong Jatta has been saying it and questioning your credibility. Lima ma gis Banjul man neexuma te daf ma naxari te li naxari dinaa ko def di same video bima ma def si laa Tamsir we have seen him what is he doing? What is he doing? You already know you have things that disqualify you for the most part. God party ki nga nekkoon ñu dégg Musa Yali ba ci li wax ko ne Tamsir daf leen play dafa génn si because jàppoon nañ I mean take nengo ko mu génn ne Pardon. te suñ COPAD ne war naa nekk gazette bi ne it's official topp nañ sax tey ñu war a toppa yëpp mbaamal gaay ci liñ wax li Moussa li wax and like te ko ne waaw na ñëw nekk president candidate nga nekk America neex la nga the past years you've been going back and forth and the country's law said it I'm not this is IEC to decide in the next I mean 24 less than 48 hours bi ko banka wala ñu ko xam kan kan but just for us to know ne yóbbu réew du yëfi caaxaan and we need to be very careful as a nation su ko defut dinañ suuxloo réew mi yàlla na bu ko yàlla def suñ jaboot gi suñ rakka suñ doom yi suñ set yi we owe it them képp kuy Gambien di ma déglu nga nekk ci jamono ji nañ leen xam ne yóbbu réew du yëfi caaxaan yóbbum réew du yëfi caaxaan du yëfi caaxaan and we need to open our eyes and the wise Tamsir Jaase génn na ne dafa taxaw moom it ñu toog dégg Ibrahima Tabora Maane def announcement the past two years parties yiñ fi register from ñoom Gap Musa Yali Bathily bi ñoo ñëw into the game I was one of the first people if not the first to interview Musa Yali Bathily biñ ko interview muy ñëw may defe nag moom di ma ko interrogaté he walked out of my studio he walked out of my studio. I interrogated him and asked him relevant questions about his personality, allegations and accusations against him, his policies and the like. Lim wax rek la bëgg wax to walk out of my studio man duma ci bege bege kenn suma def interview ñoom ñëpp bantam gu talañ ah. all this while it's been a minute I have tried to get interviews with a good number of them I mean, Musa Ali Bachili included. After that, he would not grant me an interview and he would meet people, I, I mean, who allegedly told me, I mean, uh, he would call me dangerous. Gambian talents, I mean, they are very dangerous. is only the, the only time that he would grant us interviews, but not at our studio or uh, an exclusive anytime. The same thing with Dr. Ismail Asise. Lima wax yep, I'm on record. I have engage these folks. I have interacted with them, this sort of activity to try to engage them and confront them with certain questions that they should be able to answer. Dr. Ismail Assise, for the past three years, the same thing. He would not grant me an interview. He wouldn't. He wouldn't. And I'm on record saying this. Largely and conduct engaged Nako personally. When Nene Gomez came and took over their, I mean, um, um, PR department responsible for their Lakers and spokesperson, I engage Nene, who pay a courtesy call to Gambian talents, all the media houses, new Gambian talents, Manak Momak Fasamba, and another staff I'm meeting. And I said this to her, Mune didn't facilitate a, an interview with Dr. Caesar. Until this minute, it wouldn't happen. A good number of them. Bantabu Gudaleng Malale. Bibi Dabo, the same thing. We've seen it ñii I have engaged them on numerous occasions people I ñoo announced an intention until the time that they announced their intentions. I filed the same thing. When I engaged him, oh, Mema Bedi 12. In fact, I was one of the first people who knew his intentions because when the rumor started, before the rumor started, or when the rumor started coming out, ma wax ko ne mu may interview after the lead. They would never tell me no, but they live in Wiriwara, Mara Mara, until they never granted. When I spoke to him, I mean, I'm, I'm, I'm, I'm exchanging messages with him. After the 12th, I think this was the 12th of July or August, something like that, when he was working on it. That was actually the day that he was supposed to launch his party. Silaham, ne, he was working on launching a party. Unfortunately, the time was too short and too tight for him to have done this whether it's Dr. Ismail Assise, whether it is um, um, um, D, because you are a political scientist. People look up to you. You've done a lot for the young people at university, teaching them political analysis, political scientists. It's very important. It's very good. Gisna, just because amga mbolo, wala amna na ñu la especially social media, does not translate to vote. All these newcomers in the game, si ñoom man li ma gis Banjul ma lately we are seeing so many things happening ci Gambia ci Banjul loo xam ne the office of the presidency has been like brought down so low so low the bar has been set so low and it's not okay Nung ngi ko téye yu fi caaxaan nag ñëpp a ngee kiki kiki di ree every day ñu gis ñaar ñetti nit ñu ñëw ñu ees people know how they are even going off track yes it's their right as citizens why this is where President Barrow comes in when the CRC went spend lu ëpp téeméer at ñaar fukki million ak benny million, million hundred and twenty six million dollars CRC the Constitutional Review Commission be spend ñu spend ko Gambia government ñu brag dóor dem na ne this is taxpayers money du xaalis bu ñu may du xaalis bu ñu lebal du xaalis bu jëlee benn bitim réew because it's a constitutional thing national thing la local thing la dañ ko bugg a own dañ ko bugg a moom ñu jël xaalis comme comme réew mi nga xam ne nit ñaa ngee jooy xiif nit ñaa ngee jooy mar nit ñaa ngee jooy security kaaraange ak education every single time ñun ñu nekk ci media bi rawatina suma maas bi nga xam ne ñu ngee def philanthropism every single time people bang ñoo contact about different problems and issues Kireumi has been xaalis a munadugal a instead of ñu kofa, ko fa I mean ko yóbbu CRC they went everywhere including America If bi fi gars yi I had the opportunity to sit with the am am CRC chairman Thierno Jallow Justice Thierno Jallow man suma boppam interview ko two hours interview I had with him interrogated him challenged ko ci yu bari ci CRC bi ak lu Mukdogma a lot of assurance about credibility and how he thinks the CRC is not a waste of taxpayers' money. 50 million that xaalis bi nga xam ne spend nañ ko sax pour ticket yeeg seen padeem every single thing hotels, si jël ak yëpp yes bi ñëwee Seattle hotel last day. obviously with the staff all bi ñu event a lot of the things that they did they spent a lot of money on that trip pour ñu war a def loolu noonu yëpp dox ñeneen ti koñi réew mi penku wala ah, Europe ñëw America them other parts of the world pour educate Gambians to get the voice of the people the choice of the people lan lañ bugga ci constitution bu es Gambians ne lii lañ bugga ñu jël loolu no, sweep under the carpet because it doesn't favor them that would have set standards not every Tom, Dick, and Harry would have been able to contest. The office of the presidency is not of, of the president is not. I mean something that any Tom, Dick, and Harry can occupy or should occupy. du lu ku nekk rek mun a jóg caxat caxat yene man dama taxaw nekk président Mane bot eno xam na lu bopp antam nit ku nekk war ngaa làmb sa peese sa bopp ba xam sa poids. This is you, the number one citizen of the country. How many millions of dollars? is? Six hundred and something million dollars is millions of la wax de mooy dépasse office of the president annually ngay tukki di dem fu ne si àdduna di deal ak am am am am am different people with what they are coming up with you can tell the ñii des nañoo understand issues and how they work duma ci fàtte suma brother suma xarit Kitabu Fati who I have done so many things with and for Kitabu di comedian rek ne dafa taxaw I have interviewed Kitabu years ago and Kitabu has done skits years ago in which he was talking about being president and contesting for election and the like yes he has done those skits when he made the announcement everybody thought Kitabu was joking kitabu dafa kaf kitaabu dafa of Kitabu dafa kaf everyone toog ne kitabu dafa kaf ndeke mu ndeke mu ngee déggal mu dugg si campagne trail bi amee couple of rallies yarandea ne dafa registré amin am am uh, uh, uh, amin a political party te couldn't meet the requirements mu drop ne dafa taxaw independent balaa ñoo xam lu xew kitaabu endorse Essa Mbye Fall gis nga Gambia nañ leen bàyyi caaxaan nañ leen bàyyi caaxaan this is no disrespect to any of the people am nañ right bi pour des ko waaye nga yelloo dara taxul nga jël ko ah? nga yelloo dara taxul nga ko de sa conscience sa xel sa xelaat daf la mun a wax moo tax ci alquran ci bible ak scriptures yëpp yàlla bu ma wax ci buggi téere yi binda yëpp dafa wax ne boroom xel yi laa waxal borom xel yi laa nekk di waxal ndax yow déglu di seetaan ci borom xel yi nga bokk ndax ñoom toog di dem di di di élection presidency ndax ci borom xel yi lañ bokk ndax man mii di wax ak yéen ci borom xel yi laa bokk nit ku nekk da nga war a peese sa bopp ba xam sa poids. We've seen so many people coming out. 26 people ñoo am I mean pick up nomination papers. Obviously, it was more than that. We have 18 registered political parties. de su Gambia di dem turu de de de am am am maabul bi nga xam ne moom la ñoo use ñu war a dem turu loolu use maabul benn tey ku nekk ñu war a defal drum fan la ñoo def barigo yooyu yëpp fan lañ leen a def fan su fekkoon ne ñi yëpp dañ qualify barigo yooyu yëpp fan lañ leen a def ci ban room dépasse boobu noonu ci kaw réew mi dépasse boobu ci kaw réew mi it's too much 10,000 currencies. Nga dem jëlee certificate karak. So register as an independent. Yi nga soxla very am am am minimal things. Kalis bi mochi ci gën a takku ci lu bari leneen li yëpp mun nga am bir Gambia lenen li yëpp mun nga am. because ñun ñëpp ñu ci bari ci ñun gomuñ suñ wa gomuñ li ñoo wax gomuñ li ñoo def. ñu bari ci ñun gomuñ li ñoo wax gomuñ li ñoo def. You just sit down and talk and say things. lip service waaye miinuñ ci dara mooy tax tey nga gis ñu dem fii ëllëg ñu dem fele selfish people toppa suñ interest rek lu ñu neex ñu ñëw gomloo la ko di nga gis ko taxaw mu ne la yaa fi toj yaa ngi lifin nañ ko seetaan rek yéen xale jigéen ñi xam ngeen li ma wax waxtu nekk ma ne yéen ay suma xarit su ngeen a waxtaan yéen neen di nga gis ku romba sax eh yaa ngi naay yaa fi toj mu romba ngeen okkante waa gis nga ruujam bi gis nga mekobam bi gis nga eh, am am am shogom bi gis nga lii gis nga lele ñun boy, tamit di same thing dinañ toog si géto gi jaay daan daanlu di jaay low. daanlu naan ataaya poon def whatever you gonna do am ku romba wala kena si boy jóg ngeen ne bilaahi sawaaji maan bilaahi mu xaat la lii lele whatsoever li ma wax xam ngeen ko paa yi toog si bantaba bi def ko maire yi toog seen tuur yeeg seen lifin def ko ñun li wax xam ngeen ko we all know it this is our life this is our attitude and it is the same thing that we bring everywhere including in the government I deal with so many officials in Gambia. can be Nutenka. And that is why we decide to be independent. It doesn't matter what it is. It doesn't matter what it is. We decide to be independent. That's why you would not see any advert or whatsoever on the Gambian Talents platform. Because Sunyoe then Kosega, Daniel Halis Tahud knew act otherwise with and then your Sega to, to see, to vet who is coming to actually act otherwise or to try to shut us up Then ko media house yi seet media house yi tamit whether online or local television yi neka ci almost amga poor farm. far su nekkut ci politique bi ci business yi na ngeen dem seet ñi nga xam ne ñoo the next minute I mean ñooñu def lu wrong ñu def lu wrong nga seet dinañ seet naka la ñoo defaree ñooñu der I mean rather than actually facing the fact whether it is government or the private sector or all political parties or whatsoever. For the record, for the record, you will not see any advance fee for the most part du supersonics. And Almamo dilal. You know him, you ask him. We sign a contract to have whatever you ñoo def fact mom. Na fi def dara eleg wala supersonics jom do jaaj I nit, I gambian definitely whatsoever we will engage him in the right way and follow all due diligence to engage him and his team. We will be the first to have exposed them, published them, or say any of the negative things that they're doing. And he knows that. I instill these things for the young people working in the Gambia. They all know better. And Lila, you are a dohal. Not because somebody gives you money, not because somebody is promoting something for you or not so, because somebody has a contract with you. Media is supposed to be independent, and this is what ought to happen everywhere. is nga Gambians We owe this to our people. We owe this to our kids. We owe this to our youth. We owe this to our grandkids. To fukki nit di gas nag fukki nit di suul For pax du fa am Gambia Do them. we all agree bi laay Gambia bi laay dëkk lële at the end of the day let's see how it goes suñu affecté nag is the only time we come back we take these things to the highest office when I say these things bilahi, lingawa nga wax dëgg la bot no no that's not how it goes you ask my board of directors when I when when we we, we had them. I mean, invited them for a meeting to, totally. One of the first things we told the board is to not interfere with our work. Is to not interfere with our work, to allow them to do what we do independently. Fuñ lu wrong ci dëkk bi ñëw ñu condemn ko nguur gi fu ñu defee lu baax dañoo ñëw ñu wax ko fu ñu defee naka su dul noonu ñu wax ko yéen ñii seetaan di toppa Gambian Talents yëpp that's one thing li ngeen ñoo seedeel for the most part ndax dinañ ko def mu baaxam duñ ko lifin as we have a lot of young people but then ndax dinañ nekk fu nekk jox ku nekk platform we do it Gambians nañ leen ibbi suñ bët yi and let us be wise and not allow these people to fool us that's what I said President Barrow that's where you coming? killing the CRC the constitution bu ees moo any and every time they can hari jokte tey ne dafa I mean president we have Banky the Rasta guy coming great ideas intelligent man brilliant man yes he has a lot of good policies even the marijuana policy bi more wax sax ne dafa lii xanaa dafa fekk dëkkuloo foo xam marijuana wala taayandoo mu askan bi Yes, there are a lot of steps that need to be put into place, a lot of things that need to happen. There is no doubt the Gambia tribe, well, I mean, drugs at use is causing a lot of things. But Nyari Kese Kese tribe is is It's, it's, very lucrative and bringing so much money around the world. Seattle Gima Dekani, do passe, um, doh, well, them, lumut, five, ten blocks, the Gisulo Shobitai, Seattle Gima Deka doo dox lu mut 10 blocks doo dox diggante lu mel Westfield be Jimpex te gisuloo boutique yi taay doo dem lu mel ni Jimpex be am am am am uh, uh, Joswang te gisuloo fa sobi taay su waree continuer dem boori Tabokoto doo dem be àgga Churchilltown te gisuloo fa sobi taay doo dem be àgga Talinding te gisuloo fa sobi taay this is how close it is so medical marijuana is bringing a lot of money. When Banki champions this, Nyubari crucify. It could be a good policy. Is it practical in Gambia? It's a big question that we can ask because lu bari lañ america fee, in association ko jaay but then ko reguler bu ah. that policy can be good but you see banki coming to claim he is going to be who he is See dreadlocks But then ci sansem ni mo solo come on a president should be presidential li way di uyo dang koy nuru ci tour bi ci jikko ji ci joma ji ak ci melo bi te yu bari not even any serious liggéeykaay kay la wax de any serious kay do fa dem muk, di dress ni bank. di dress in fact daala yi mo sol sax karax yoyu for his own safety and health and safety duñ ko alaaw sax mo sol ko place bari mo dem dem kay yu bari duñ ko alaaw mo sol ko I engage my kids. I mean, I mean, I mean, I mean, I mean employees in Gambia to talk to them about these things. I've engaged them in several meetings because I've seen them wear, for health and safety reasons, you would not be able to wear those things. Mola one, maybe the idea and MCO. Being a president, nekat law alone. Momat law sabo padanga am I protocol officers nila direct dila one dila you. fu nekat dila wah sa schedule dañ ko contrôle yow di nga dem di toog ak international people banque ne moom du change dara si boppam su waree toog dàllam yi noonu laa continuer di sol dàlla carax yi moo sol noonu are you kidding me as our president dangaa bugg di sol short every single time you travel internationally you go to the UN General Assembly you go to the OIC, you go to different international ECOWAS, I mean, AU meetings and different places, and then you will be wearing the same thing, banking. dafa fekka desuloo xam desuloo xam dress code is very important bank yi is very important MRC gi nga liggéey noonu I wonder how they leave you to do it but it's very important pour ñu xam yenn yi ñu am suñ sista Mari Sock the same thing I'm not gonna change who I am <laughs> bi nga ko defee you're not gonna change who you are lu tax nga génnee sa sa sa sa sa sa sa suma technicien si I mean, you can show me some of these images if you can. lu tax nga génnee nataal yi nga defoon sa page not to discriminate any profession not to discriminate anybody on your looks but then dafa am nyari things yo xam ne munta ànda they can't go together you either do this or nga def dele loolu la rek munta ànda munta ànda you either do this or you do that Lan mo tanda jene sa picture Marisol, you are a woman. We celebrate you. You have made history. You are the first Gambian woman who, uh, woman who had in nomination before at presidential level. Dr. Isaac Ture did it. You are the second. Dr. Isaac Ture didn't get to this level. So, we, truth be told, you have made history, Marisol. Make a history. Yes. Calling all the political leaders ñu drop li ñoo def ñoom ñu ñëw join la people that have established what they are establishing I mean what they have established for years gis nga lii yëpp because the new constitution didn't come into place ñu gis the big cats the big men the big guys in the building the experienced ones the veterans ñu gis leen ni ñoo doxalee lately lately a lot of people who had experience who have spoken and said a lot of things the past year and a half Gambia was going through a crossroad ñu gis am PPP li fa xew n NCP sax ñoom maa jàng Musa bi gars yi di break up nekk two factions IEC intervened pour wax leen ne nañ régler seen bill threatening to suspend them NCP yeah good. less than two years ago si seen congress or thereabout New gis PPP went through the same thing twice Bibi Dabo from na form GFA moom ak Wow. New Bolong waaw ñu ñu continuer PPP at the same saga again Papa Ndiaye génn na jaay philanthropism def lu nekk dañ dee def lu bari ba nga xam ne dañ dee smear everybody ku si nekk sax nag philanthropism ñu ne lopitaan bi soo gisee li moo def foofu noonu gisee li moo def Serekunda yoon yi tali yi moo jéem a defar lii yëpp calculated tactical position the way they flip flop from one party to another. Still adore. PPP handed over, I mean, the Papanjai between Momak Bibi. Bibi Geda, if he believed in what he was saying, why Geda? To fake and Demgabe, congratulate Key, which we have seen, just like the Jamede from 2016. Bibi never congratulate Papanjai. We covered this thing. And I did analysis on this. the next minute mu change mind gis naka lam fa demee ñu gis Touma Njie ak Keba Jallow fii fàtte xeju fi yaa ah, ñoom ñëpp we have seen how it is Touma ak Keba Jallow we've seen what happened between them ñu ne dem nañ court eventually it's and unfortunate all the I mean uh, naka lañ leen a dem Touma am am Touma Ndiaye kansiloo si ak seen leneen lifin yëpp dem ci Touma Ndiaye Mari Soga Ngok ñu dem ci Touma Ndiaye fan lañ mujje Papa ñu def ko ambassadeur noonu la ci em la ci em Oje Jallow made a lot of noise veteran politician former agriculture minister principled guy you would say su waxee ngeen ne mooy he's not gonna go in president Barrow bëggul place Barrow daf ko daaxal yi li lay wax yu bari bi ma ko seetaanee démba 2016 2017 my guys interviewed him man suma woppa bi ma Gambia 2017 interview naa ko as agriculture bi nekkee minister bi ñoo def road to ndewenal force road to ndewenal bi ngeen a ni ñoom Pat Samba di ko def if you have just started following Gambian talents and seen it I started that dem kër OJ Jallow dem kër Halifa Sallah dem kër ANM lawyer Ousainou Darboe and others at the time ñoom Ramatulaay interview nañ ko biñ George Fire kii nii ñoom Ramatulaay interview him Ramatulaay Gaye interview him OJ he said a lot of things those days lim doon wax ci jamono jooju ak li moo wax tey dafa complete dafa completely he was with the notion that President Barrow should have stepped down should have stepped down for the three years the three years got manuwe. that was his position when I saw him yesterday and all these times, these days, then flip flop that over. They would say politicians, I'm a political animal, and all of this. This mentality is why swing the kabiru dem kanam. This is why swing the kabiru dem kanam. Yep. This is why swing the kabiru dem kanam. And it's very important that we understand this. Gambia yóbbu réew du yo fi caaxaan ma fàttali leen seen is very important let's vote and let's vote wisely we see them flip-flopping from one party to another from one party to another we saw them coming along Masi Ahmad Bagi has been there with President Ba. are defen to Congress seemingly, ne definitely um defco bureaucracy. Just a procedure rek Not my father. he was in the government the same thing the same thing when he was there he swallowed Oakland and Sunka and decided for I mean back the government the government policies and the decisions and everything ngeen them begin génn fufu. It's a strategic move Definitely, li ngeen a position boo seen boppa ba ngeen ne mu ngee because maybe amatu leen yaakaar ci système or whatsoever ngeen decide ne da ngeen def otherwise it's not okay fii mënu leen fe nax kenn su ngeen maa jos toppa su ngeen a jos déglu yéen a ngee seetaan di déglu li ma gis Banjul jógee ci Gambian Talents TV fa Ousmane Diouf nekkal leen ci gannaaw microphone bi li ma gis Banjul man neexuma te lu ma naqari dinaa ko wax suñu réew dafa toll foo xam ne ku ko sànni mbattu mu toj te foog ñu wax suñ toogee seetaan rek du baax ma ne leen Gambia nañ leen ibbi suñ bët yi li waaye di nduroo da koy uyu ci tur bi ci ak ci melo bi ah. doon doomi réew dafa war a ànd ak sa jëfin du wax rek ni ma koy waxee young journalists when I train them journalism is not kuma baa foo oo wax bu rëy do doomi réew tamit du kuma baa foo oo wax bu rëy danga ko war a nduru ci tur bi ci jikko ji ci juma ji ak ci melo bi in every way shape or form ah in every way shape or form ñu gis the big players ñu commencé ku si nekk di def sa mbir some of them coming back in the scene some try to form their own political party gis nañ fi ñoom Papa Fall I mean of course the I mean grandchild of former president Adama uh, naka former president Sadawda Jawara you think because Jawara sa maam la Olof Njaay mu ne a sa Don't use sa baay ko ñaari ñom ñaar ba si ñett laay wax lool mom papa fall jawara mamam la nga am cheikh tidiane haydara gano shérif keba haydara am la shérif la ñaari mbir la leena wax olof njaaya ko wax moy lima gom don sa baay don sa baye ko gen don sa baay don sa baye ko gen ta def dara nga ñëw nga def ko moo gën nga ne nga lim defoon sa baay su la bàyyee dara yi tamit ma jël kàddu président Adama Barrow bi mu doon campagne 2016 ci turi lawyer Ousainou Darboe ne nii amin eh, eh, dingo mo ni fala korda ni fa fata iman kuno woto bari ni fala korda teta wo mila din kuryalati president Barrow lulla campagne in 2016 ci ñu déggul soose mu ne nit sa kër baay sa baay su dee lo ci dara way sa keppaay su tassé lolu sam bon la te dom ju bon yaala da nga bon dom ju bon nga President baro ko don wax de this was his slogan he said it in so many UDP rallies and places he went to no ni fa fata iman kuno woto ta bay su munu lo ci dara dem na kon ku nek don sa bay don sa bay ko Cheikh Tidiane ñëw taxaw ci nit ñi dañuy dem dékk loxo they are kingmakers people go to his dad to ask for um blessings to be kings to be president so since ñoom dañ not make kings they have come to request to claim the throne moom li ma koy tontu wala li ma koy wax mooy doomi mbur ak waliyu suñ ko dékk loxo ma xaama baayam waaye ma bu muy am ba jiite mbooloo ma loolu moo koy sàkkul boppam olof njaay ko wax ba tey de doomi mbor ak waliyu mbari waliyu la the son of a ras la suñ ko dékk loxo ma xaama baayam la if people will come to him to put their hands up to ask for prayers and blessings is because of his dad waaye Mahama bu muy am the level that he should be to maintain that is on him It's on him so somebody neka nekk Somebody sa def na bede. te gisuñ mu def def to teggi sa tanki bay doxuloo si sa tanki bay you won't certainly have what you has nga liggéey ak yaaya jamme mu daaxala nga delu si it's so crazy liñ nekk di gis lately it's just crazy it's just nasty ñu dem a flip flop bi president adama baro jakke ko nak mo ma ñew ci dis yaya jamme saga and prohaha and everything that's happening with yaya jamme president adama baro with all due respect mom mo jaka disrespect gambians with this yaya jamme thing with everything that is going on with yaya jamme because president adama baro mo jox yaya jamme the audacity the guts the wherewithal the confidence The prérogative pour mu jóg di jox wax Gambia it's a security threat Yeah, Jammeh still has his following you established a commission you came and told Gambians ne Gambians si su ma toogee su ma jàppale su ma ñëwee fompa seen ronkoñ su ma ñëwee su ngeen ma électé ñetti at laay su ngeen ma électé moo when I saw you yesterday and all these days bragging about how you have um, develop your confidence, how you have, I mean, fulfill your promise to Gambians. You left everything you promised and took another part. Another part. li nga Gambian security sector reform civil service reform land reforms constitutional reforms TRRCB, bi commission all these reforms yi nga waxoon ku si nekk have almost gone down the drain tell us what you have achieved in those sectors li nga wax Gambian si su ma ñëwee ngeen taxawal ma dinaa seet security bi li fa nekk ñu segga ko sampa civil security sector reform ñoom may faati dog fële ne le wax campagne dóor dina taxaw nekk adviser def ku I remember in one of the jotaay yu suma am am guy Coburn in Kanilai I watched it at Sindola I saw my party bragging about the security sector reform the policy that they have need to validate this thing gis nga démba rek laa jógee get am lañ get an email about something that they were going to validate bu leen ñu nax bu leen ñu nax Gambians yi ñii may seetaan di ma déglu Dear civil servants, stop betraying yourselves. Stop organizing these conferences and workshops, endless conferences and workshops, creating colorful documents. Colorful documents that you don't believe in that is lip service we do this ñu continuer di def yi foog ne ndam this. du caaxaan gis nga président Baro alone cannot do this si boppam wax naa leen ko it doesn't matter who becomes our president kan moo nekk suñ président te wecci chun suñ jikko yi te xalaatuñ ceñuñ suñ xalaat yi te xamuñ lan mooy doomi réew ak impact bi moo am si yéen ak ci man we will be betraying our country you sit there and develop policies you sit there and validate those policies then da ngeen am conference da ngeen am workshop spends hundreds of thousands then a two days workshop ngeen spend ngeen si hundreds of thousands I mean millions of dollars just because of kickback da ngeen am retreat dem Sindola dem Jara Soma dem Bakadaji dem uh, uh, uh, Nakala place bi two sax I mean you go to all these remote places dem Jara Soma Mansa Konko for retreats, two, three days, four days, one week, because of per kickbacks and stuff. Develop a document that is so colorful and wonderful. tukki dem fune kachi ci àdduna bi a dem jai policy boobu Wara a dem jël I mean fan ñaari fan ngeen yóbbu ko one week loolu yëpp ñu is cheating and betrayal of trust te lima wa wax xam ngeen ko because it's the order of the day ku yar queen at nag balaa daan kenn daan what goes around comes around you are not going to be in your position forever mun ngeen koo def tey ngeen enjoy ko when your kids come when your grandkids come they don't have some of those opportunities and the like and governments change people stay there i mean um, um, uh, uh, people come and go but the government stays government stays Lima wax ni loo bañ bañ naar di séeréer ko xeesaayam di nga ne li wax neexut ma civil servants yi politician politicians ku nekk li ma wax fii si yow wala sa secteur it's a fact it's a fact di nga ne neexut la bëgguloo koo dégg waaye ne am mu ngi am wala amul du lu ñoo mun a weddi because du ma toog rek di jiiñ nit dara wala di jiiñ e secteur dara nan li ma naqari neexut ma gis Banjul neexut te lu ma naqari man dinaa ko wax it's about time we Gambians, check this out. You have the civil servants, you have people that are faking the presidents. Every time di leen nax ñu def ko saa dawda dim demee na dafa bàyyi ñu dem ñaan ko paayee koto yeeg civil servants si fa seen interest nekka ñaan ko beeg ko ne bul bàyyi lii lële seen interest da war a continuer ba ñoom Yaya Jammeh coup d'état ko nekk same thing ñu ko jéem a lead to that level sax try to even make him a king though ñu doon work towards making a Yeah, good. fàtte xeju fi fii fàtte xeju fi fàtte xeju fi ñu bari ñuy defal président baro loolu don't mean it interesting enough one like suma brother Sidi jai. man maa interview Sidi jai. fi mu silence bi newspapers yep, kaare ko give me credit I interviewed Sidi Yeah, Yaya jamme. ci suma platform. Mom, tamit dafa jóg ne dafa walk out of my studio ñetti nit ñoo walk out of suma studio in my journalism career Sidi Njai is one of them um, uh, Musa Yali Bachili is one of them Njai Mane is one of them because of the questions I was asking them The suma platform la Sidi Njai waxee ne blood is thicker than water water ne moom ak président Adama Baro, ay am lañ yaayam I am edda pour mu jàppasi pour mu jàppale we also my brother Sidi here what he did. 2016, 2017, fresh on our minds. The verdict of the Gambian people. Be the last minute to get plan be under care them them. Equatorial. You've seen it. And so many other people are with him. kumba mu am dey kumba mu amul ndey when Janet commission report came government white paper came recommendations yëpp ñu seppi si lu leen neex képp koo xam ne yaa ngi ci système bi ñu jox la very trivial am am am am am am uh, uh, uh, um, punishments or whatever you call it ñeneen ñu baaleen wala am severe things the commission bi recommend ñu jox leen seen place ñu continuer seen liggéey you wine and dine with the presidency with the government partner, and you seen affaire fi ñu it's rather unfortunate President Barrow you could have had a good legacy if you resign after three years build the eye book could have even been a, one, a winner of the Nobel Peace Prize. You will be an exemplary leader in Africa. Three years, fast enough. In the fifth year, that is history now. That is history. So for wax ne Linga nga digge woon yëpp far from the reality. Well, I remember the famous press conference you had bi deme Sénégal ba dellu si waat in la first day jàkkaarloog journalist journalism, Sheriff Bojang Junior outgoing president of the GPU Mola la laaj ndax hire anybody at APRC you have enough manpower in your team i am going to bury this team you have all that it takes law anybody from APRC these were your words time pour ñuy of these videos but it is important pour ngeen xam ko wala boog ñu fàttali wante ko ñu fàttali wante ko this is what you told Gambians it's right in my head normally when I do shows I pull these things it was sri Bojang Junior who interviewed you and asked you this question and loolu nga ko tontu woon suñ toogee tey ngay wine ak dine ak those people dem to the extent of yow nga decide ne danga collate ak gam ak ak APRC ñoom Fabakary Tombong Jatta wax la bu loolu ne Yaya Jammeh endorse na ko tax nga jóg ñu gis Faa Bojang mi nga xam ne di nguur gi ceeñee rek la daw ñëw Amerika Faa Bojang dellu si waat ba tey fi ndax démba xaasal nga ko démba président Barrow xaasal na Faa Bojang si meeting am bi ahankay haasalna paabo jan si meeting am bi mu ñemeña dellu si waat Gambia just like that ki nga xam ne moo amee woon Yaya Jammeh business am yi Kanilai Farms KG I am business Yaya Jammeh yu bari under Paabo Jang la nekkoon his name was adversely mentioned in Janneh commission adversely mentioned in Janneh commission ñu jox ko vip treatment mu dellu si waat si dëkk bi nga dem nit ak famille yaay victim si toog di jooy seen xol tooy this wasn't what you promised i watch your video president adama Baro. bi nga wax ci solo kuruma of udp i'm just stating the facts i'm just stating the facts bi campaign 2016 dem dëkki solo kuruma di wax li nga wax ak li nga promise family solo ci jamono dégg nañ ko we had it wax nga fa this famous saying ni fa la korda ni fa fata iman ku no woto ni fa la korda teta nga wax ñoom solo kuruma sacrifices in defan everything and you promise his family that you will make sure that justice prevails yes you did you promise his family da nga dig njabootam ne di nga make sure that justice prevails this is what you did. This is what you told them. It's not something I'm making up. I have all these videos. I have played them on my shows. I played them on my shows. ci lu Gambia du dem show man li gis Banjul neexuma te lu ma naqaat ko wax what happened to that promise what happened to the promise of Solo his family what happened to all the other promises we have made, all the victims, So, Sunekute victims in UDP, sir, because right now it's between you and UDP. But should victims in UDP, sir, because UDP are not the only victims in the country, indeed. We're talking about 200 and something, 300 and something victims. Not all are UDP. From every sector of the society, including eh, former President Yahya family themselves, including his tribesmen, including security officers ordinary citizens, tourists, nationals of other countries like the Ghanaians. So this is not about UDP. How clear your, was your consent? I wanted to do a show on this and talk about it. gis a president should be presidential a president should be presidential you continue to say it and you even said it yesterday démba rek bi moo def programme am bi si booba zone speed am bi wax na ko fa mu ne moom jula la moom du politicien jula la ni ñoo yóbboo naka ni ñoo lijjantee xaalis he was bragging about his achievement with the economy The réserve bi bi moo ñëw 35 million dollars président Barrow wax de démba ne 35 million dollars moo nekkoon ci national reserve bi one month salary Legi ñu ngi seven month salary ñu ngi servir moom salari to moom jula la xam na ni ñoo lijjantee xaalis gis nga li waaye di uyoo daf koy nuru ci tur bi ci jikko ji ci jomma ji ak ci melam we have all these records I've just been so busy lately and cannot do shows li ma fi wax yépp lu tegu la yépp lu am la duma fi jiñ kenn lum muy lu baax ak lu bon we've been following and have been keenly interested even before we establish anything like what we have in the Gambia. There's no doubt. We've been in the game for a minute. And with the politics, we have been following it keenly. And li ngeen ñu fi waxoon yep, nag ak ñi fi nekk léegi nag di wax ku fi all the things that you are saying in your interviews on your social media platforms. We are keeping records of everything. Everything. Everything. You go foog ne lip service that I ñëw already di wax Gambian si our nga we are keeping records of them. They will hold you accountable as the fourth state of government. ñu keep accountable. They're gonna keep you accountable. loolu mooy suñ liggéey. so if fi toog di you joxe promise all your promises your ten point agenda NCA I mean UDP five point agenda transformative agenda doy all of them ñu ngeen a wax keep track of and we will hold you accountable for these things that you're saying so it's not just lip service ngeen ñëw rek wax nit ñi ne loolu moo fi war a jeex Gambien si nañ leen ibbi suñ bët ñu bañ ko ñu nax ñu bañ ko ñu mbaamal ñu bañ ko ñu nekk di déceive wala ku ñëw toog am hidden agenda am prépare dara togga ko benn ñor ñëw jël ko di ñu jéemal yi this thing has happened for so many times so many times it's rather unfortunate it's rather unfortunate man li ma gis baa Adama Barrow dem jàkkaarloog yaaya naka famille yaaya jamme wax ak ñoom victime si coow loolu ñu ànd ak ñoom Fabakary Tombong Jatta too nga ñëw reveal to the Gambian people all these things that you have been saying sometimes dama dee wonder sax ndax is it something lum tey as he just comes out to say the things to reveal the things. Because I watched an interview in which the president revealed some of the things that he did. Honestly, Suran Manla, I would not trust you again. Talking about when coalition talks were going on, naka bi jaaja me banye dem be um Ellen Johnson Sirleaf ñëw former president of Liberia ECOWAS chairman bi ñëw ak délégation am bi biñ toogee moom dafa génn mu ne gaay ne dama bugg naka li mu Ellen Johnson ne ko waa waxal gaay ne melal ni yow yaa ma request pour man ma ñëw ma mit ak yow moom moo request lu moom président Barrow togga ko ba pare ñu toog ak coalition partners yëpp ñoom Halifa ak ñoom OJ ak ñeneen ñoom may fàtte ak yeneen li fi ni fiñ toog di am meeting di delegation that was there mu ne amin protocole bi ñëw ne ko amin Ellen Johnson Sirleaf ne daf la soxla te moom moo ko behind people. And you have the audacity, the guts, and everything, and explaining this thing as if it's normal. As if it's normal. Dem si mel sulli nit ku It's illegal. You do those things wrong. The same thing ni 2017 the most recent one in 2017 because Siri Ndiaye indi lay Fabakary Tombong Jatta gaay toog no wonder APRC duñ Lal, président Barrow lu bari all ah. along nag seen press conferences I've made analysis on this by the way they always blame UDP they never blame Barrow Fabakary Tombong Jatta kam they never blame Barrow ñoom Rambo ñoom Yankuba Koli they had always blamed the UDP for the failures even being Fagene is Ahmad. They continue to blame UDP for everything. dinañ ñëw ci loolu but this is what they did man li gis Banjul neexuma te lu ma naxari naa President Barrow all these things that you have done that were wrong including bi nga ñëw di ñu wax naka la la waa UDP tànnee Letter, bi nga xam ne yow da ko submit sax pour apply for the position pour nekk seen flag biara ne dañ la ko bindal nga wax naka la ñoom Dembo By Force ak ñoom Ajiyam Seka toppee di la encourage ba last minute We ñoom boo jaaju we are interested in the position ni ko gaay defee the politics that we are play that was played ak li gaay def fal la of course ma wone ne yàllaa tudda lii ni nga koo waxee ne ŋanjee kono le dama ci gis suma bopa this is president Baro himself explaining ah this is president Baro himself explaining ni ko UDP tane dafa wrong corruption was involved politics was at its highest peak niñ ko tane def ko presidency motax tax suñ ñu fi paré jiñ yenn yi tamit suma ma ci si UDP wax ko suñ paré jiñ yenn yi bugg a ñoo fàtteloo mën a fi President Barrow toog na waxal li boppam Jen said lately rek the things that he has revealed toog di dawal moto two weeks ago two Sundays ago this coming Sunday mooy nekk two weeks ne Barca la jógee naka moto bi America la jógee dañ ko jënda cash nangam ak nangam like seriously seriously pour Yaya Jammeh am the God's tey jógee foofu rocceeku si which is what he has been accused of almost witnesses you know, ci TRRC bi ñu si bari this to Yaya when they were asked to describe him ku nekk si ñoom ak those close to him ñëpp ñu si bari si ñoom um, describe nañ as somebody that is inconsistent somebody that changes his mind somebody that some of them even call him bipolar with all due respect, but these are the words that they used on him. Some people say, Nimde flip flop, they cannot know his mood. Hamuñ fan la tollu ak fan la génn aw whatsoever. This is what they said. Ñu bari si ñoom. So it's not surprising. It was an embarrassing moment. Génn def seen sukuta meeting. It was an embarrassing moment. threw it in your face. Do I strongly believe that he engaged both parties? ñoom Fabakary Tombong Jatta ak ñeneen through whoever yes su waxut ak ñoom directly sax su waxut ak ñoom directly sax he did that jël gaanu ekati leen ñu def lu nekk kirti kirti ba gaay ne dañoo def seen meeting kër am am uh, uh, uh la suma am waa ji tuddati sax amin last week biñ arrest ko arrest journalism and everything is rather unfortunate ñu gis Seex tidiane ndeysaan ba fugóor fugur yi ñoo wax am ñoo ne wax na ak police yi dem na wax ak IGP ñoo wax ak supporters yi APRC if I am your leader do this do that the next minute ñu déggane dem na si Mama they are signing an agreement no wonder you didn't invite the media to the signing ceremony when you have something urgent or uh, something that you know is worth media be to be present and booking and call it the right way gdc you invite people fc champ junior Smagoro. you are very very good at doing that very good at doing that no wonder you didn't invite all the media and invited i mean Kefar however no wonder ñi ngeen dinañ leen interroger dinañ leen laajte lu bari dinañ leen kisi kisi you were not invited there these politicians and the way they are acting Mama Kande had a potential he has a potential in Gambian politics the new kid in the block came in 2016 got 18% of the votes what more can you ask for what more can you ask for? If in case, in case like what President Barrow win it, the reality is, it's UDP that is going to win if President Barrow doesn't win. ci seen diggante la nekk ñoom ñaar ñeneen ñi yëpp he's Mama coming along but indeed the fight is still between these two you know and this is where having the constitution, the new constitution, would have come into play. Because by the look of things now, because kenn si yéen du pull I mean all that none of you would have pulled I mean fifty percent fifty one percent of the votes fifty plus one percent kenn si yéen Pool, by the look of things ku i am 35 percent sax try président Barrow thirty nine percent la amon in twenty sixteen with all the parties backing him. Eight political parties and one candidate. That's what he had. 39% of the vote. Mama Kande had 18% of the vote. He was in good shape, Mom Mama Kande. By the look of things, su fekkoon ne Barrow winut election bii laa wax de I mean UDP win that would have boosted Mama Kande's um, credentials. That would have made him possibly the biggest political uh, opposition that would have made him the biggest opposition. And he would be in good shape. Whether 2026 Laneka or 2031 Laneka, but he would have been in good shape. So fekkee any moom nekkul president sax his GDC would have been in good shape. Olof Njaay nag mu Umar poti so Pompey ubbee nga Mama can moo fi multiple occasions rubbish former President Yahya Jammeh talked about the TRRC and how it should be enforced and everything. MC Champ Jr., I remember interviewing him, interviewing him. I remember our platform interviewing him. Munyo talk for Bir Gambia show. I forgot who among my reporters interviewed. And he talked to them about the CRC constitution, uh, uh, uh, Jane Commission report when it came out. Again, time amurek li liñ war a wax analyse moo bari li ma taxañ li xew ci ñaari at yëpp laa nekk di taxañ ñi yi fi xew Mama Kandeh sat and rubbish I mean these things and said a lot of things in fact Senegalese media bi si boppam nag dañ ko interview ah dañ ko interview he said this on Senegalese media moom Mama Kandeh about former president Yaya Jammeh nooratoo gis Mama Kandeh ak Yaya Jammeh mu ko ooyee my twin brother ak boo nduree jàmma di ko oye suma siixandoor yes di ko oye suma siixandoor ñoom MC Jam Junior giving him all his befitting honorifics and appellation 2016 when they came out they came with full force Obviously, that's the time I even know, know knew MC Cham Jr. And he could stand in platforms and say a lot of things about the Jammeh at the time. At the time, in 2016. All of this was rather unfortunate to have done so. To have done so. It's rather unfortunate. We witnessed this We've been following them for a minute. We've done analysis on them. We've interviewed them on numerous occasions. So Mama Kande stood a chance. Is it out of desperation? I mean, don't judge me wrong. APRC as a party, I know you've had this analysis and a lot of people have said it and it is fact and the truth. As a party, they are entitled to their um, um, um, opinions and they are citizens. The party has the right to stay. And collate or work with anybody, any individual. And the, citizen, the, the members of the APRC are citizens, but it was their government. And people must be able to be held accountable and they should take responsibility. It happened under their, I mean, leadership, regardless of what. All the things that they are saying. APRTC Bopa distance distanced Bopa from Jaya Jame when all these allegations came out. And put him on administrative leave, suspension, or whatsoever. To fake any, all these things come in a civilized world and society, in a serious world, in a serious society. Dëkk wala réew wala institution bu bugga mu dem kanam So need to know any accuse la of njuuj or any kind of thing, allegations and serious allegations especially lu agati human rights violations you agati ci far ay bakkan wala you agati even rape and the like America fi nañ la accuse rek you are taking off the clock. You are put on administrative. You are put on, on indefinite suspension, whatever. can be And this is the same thing that President Barrow could have done with the people that have been adversely mentioned, whether at the Commission, at TRRC, or anywhere that are in the system. The same thing with, I mean, Mama Kande, APRC, they could have done the same thing with former President Yahya. They could have done the same thing with former President Yahya. It's rather unfortunate. But this is where we are as a country. This is what we should have shown. But for Mama Kande, have signed this agreement with Yaya Jame. And talk Nenu, guy um same agreement we are hearing news the same agreement bi they are not um, uh, uh signing um, uh, uh, uh as return. These are things that he has said. You had a chance to have been the next opposition. To fake one, I mean, uh, UDP was to win the election. Yes. But Enwood, Gambian C will agree on DOI and their policies, and you see it, and the average Gambian you talk to have hailed Halifa and Sidia and them for the longest. So Suny Ame seminars, Suny Ame symposia and stuff, we invite them to these things, dating back to a long time ago. I was watching Mohammed by Garmi, Kenasi, showing reporters that was in Senegal interview, interviewing Sheikh Ahmed Sisse. We analyzed guy and he said this about I mean Khalifa Sallah. The Gambian statesman, len ko buga as their president. They want him as their statesman. to fake. ne I mean am jaaxle nañ toll nañ ci diggante waaw Khalifa ku si am education academic programs and the like we invite him. Everybody in every sector will invite him at seminars at workshops at programs but when it comes to sànni karta pare go ko I've seen him to be angry. Between 2017, 2018, better for the most part. Of course, I have interviewed him too. Known as Seattle Fee, and I interviewed him. He's been angry to a great extent. He's been angry. And the speech and Bikerak. One and a half. na bimoy the last time, na Gambians choose bi mooy last time mu our battle of ideas and policies he has he has reached the pinnacle i have reached the pinnacle of my career political career these were the words that Khalifa Salah used the pinnacle the peak Agana na after bii du taxawaat wax naa holding you accountable he reiterated it but waxoon na lii yàgg na and we are watching to see if Khalifa will contest again another um, election. You are listening to and watching, you are listening to and watching li ma gis Banjul jógee fii ci Gambian talent TV Pa Sen seen and seen xarit seen famille Tigan now leen ci gannaaw microphone bi ni ma koy defee waxtu bu nekk rek man li ma gis Banjul Neho te lu Nakua, naqari dinaa ko wax suñu réew mi dafa toll foo xam ne at a crossroad and we must fix it we have seen Khalifa we have seen DOI, and CA, the exchanges that have been going on Then diggante ma ne suñ deme ba nilen am am am am am nyom ñoo ne intellectuals yi wala boog suñ ko waxul réew mi nangul leen ne intellectuals la ñu toog gis ñooñu di xëccoo yenn yi di blémante di blémante is rather unfortunate suñ demee ba agri net same policies they dañ new ñu bari jiiñ leen in fact my ngi gis campagne boobu nit na na Khalifa ak am am am CA ag Essa ag. I mean Doy join or form a coalition could they have possibly been a good team based on what is being said su ko gaa yi based on certain ideas based on certain intellectual I mean, uh, claims and everything, and the people on their team. have a lot of landed people in all of these parties. Buyagut Amna Postbumagis and Syria, I mean, uh, was contesting. It's important to note that Khalifa Bimoy his first time contesting as a presidential candidate. ñu bari in Lolo. Sidia used to be the presidential candidate for DOI the election ji gaay jot a contest and Khalifa I mean bi the first time I mean, Muitahaw as a presidential candidate. But we see them back and forth in the LCA, in the LCA, in the We expect them to be examples. Of course, for example, like Tana Khalifa a question, I mean, in one of the uh, sessions they had, Fognasi debate below on Sahnak Momak, I mean, Dr. Ismail Asise, and this didn't sit well with a lot of boys folks, which was about Khalifa responding to every single thing and every little thing, Nenyana unit of a childish. This didn't sit well with a lot of Doi folks. You look at how things are going with Nyomak CA. Gambia, it's about time. You ibisuñ lady lan la ñoo def saagante a crowd competition it's been on for a while it's been on for a while and definitely not. I programmes I remember a few months ago when I had a little bit of time bi maa def programmes were on leen ne su fitna jógee ci réew mi su fi problème UDP la ak NPP at the time ñoom la Yaya Jammeh coming into the game of course had changed that narrative he is now included and he has no business right now to be speaking in Chigambian uh, uh, uh, uh, politics just because he's a former president and he is considered a security threat a security threat moom Yaya Jammeh I was going to do a show specially. pour wax nguur gi bi mu njëkkee génn na wax ne nañ ko edda su ngeen seetee kanilaay meeting bi my team covered it they had a discussion about loolu ngeen gis maire yi ñu doon interview yenn maire yi di wax ñoom naka lañ dofee ñoom liñ namoon lekka yi am yàppa géej ño lekka lii amuñ courant amuñ li amuñ lele Yaya Jammeh must come maire bi ne moom dafa feebar te Yaya Jammeh moo ko mun a faj these videos are there again time amul li ñu war a wax bari ci time amul I soo have showed them to you we can see the energy in su demee ba jaral maire yi ñu taxaw si am bunti police station bi di génnee seen cër yeeg seen awra yi ñu ne joolaa tradition dañoo def noonu because ñoom dañ ses di tekku ni ñi carrément ne dañoo yàqa ñooñu génnee seen awra yeeg seen cër Kulen Lal, ay di mburusal that was wrong that was inappropriate cër ak awra du looy war a génne ci biir nit especially in public just like that where everybody is and threatening people ne kuko ko seetaan kulen ku leen kuko yaaxu ku caméra yi meen yeeg ñi ko def yëpp ñu ne leen ne doon doon do it kuko vidéo di nga yaaxu gis naa si newspaper bi earlier this week ñu ne nguur gi bind nañ engage nañ I mean am um, uh, uh, uh, government yi am um, Equatorial Guinea bi président Theodore engage nañ ko bind nañ ñoom UN ECOWAS ak international organisations yëpp pour ñu wax Yaya Jammeh mu this is from talking. that was earlier in the week ñu teg si ñaari fan Yaya Jammeh drop the latest bombshell Yaya Jammeh drop the latest bombshell ñu ne nguur gi engage nañ ko they better hurry up is a security threat ci jamono ji nekk ni président Barrow wax na ko ne munta guarantee security I mean when he comes to the country there are so many allegations te is very normal it's very normal everywhere around the world if it becomes a security threat fake any ne or guarantee sa safety dañ la keep somewhere gis ngeen ñu defoon ko fi Yankuba Touré balaa ñu ko even officially charge or whatsoever originally is because they wanted to say, um, um, um, guarantee his safety. That's what they claim. So Yaya James, I mean, Sunyo Echireumi, with all these allegations and everything that is on him, you will see a lot of people that will take the law into their own hands. He should be warned. He should be advised. But President Barrow started the game by giving him the audacity, the guts, the wherewithal, the confidence, the prerogative, and everything for him to start talking. And he needs to be stopped and stopped immediately. Now, it's rather unfortunate. Nefilington. am li ma gis Banjul neexuma te lu ma naqari ko wax Yahya Jammeh evidently has been known for saying the things that he said. Def Kofi, ko fi whether Jola whether Putla or whatsoever def He's been consistent. If there is one thing you take from you give to him, more consistency it's funnable. He ci with arrogance ci humiliate nit yi embarrass it doesn't matter who it is. The more talk, the more. naan ñoom Alaaji where I'm talking, listen to me. Don't be looking at my mouth. Listen to what I'm saying, you fool. This is the language that he used. Binyo talk Momodu Sabali, I interviewed him equally, and he said what he has to say. To demanding us back then, Nyan data why. Gisnga, we must call a spade a spade. Yajame has done what he did. And his camp are split dogu taxal boppam yi yu ci bari de nañ rumors that he participated in some of the things but majority of the things nit ñi ñoo ko ko defal Gambien si ko ko defal TRRC bi ñan lañ o CR naka Jane commission bi ñan lañ o now this thing has split has split ma dellu si UDP ak president Adama the fight between these two dafa jéggi dayo te dafa ruslu the fight between president Adama Baro and lawyer Ousseynou Dabo dafa jéggi dayo te waxoon naa leen ko ne leen réew mi su fitna jógee fii jal na bum am ci ñaari parti yi la jógee te ñaari njiit nag maa ngi leen a ñaax maintain decorum and continue to advise your people continue leen di ko wëy si seen noppa pour ñu understand yóbbu réew du yëfi caaxaan looya Ousseynou Daabo ENM seenu Daabo ak président Adama Barrow teela waalo ay waaye réew la woon teela waalo ay waaye réew la woon bi moo neex yéen la woon bi fàtte xeju fi ni ma ko waxee UDP yéen a indil ni ñi Adama Barrow nobody knew Adama baro yéen seen boppa seen members yi ñu bari didn't know Adama Barrow he came to the Gambians as a mom si boppam wax na ko yéen seen wax ngeen ko 2016 ba October of 2016 President Adama baro in an interview I've heard him said it ne moom su fekkoon ne dañ ko mean, taptabal ci bés boobu noonu ne ko yaay nekk next president of the Gambia three months later du ko gëm truth be told dinañu indil président Adama Barrow mu toog nettali ko wax ni ko ñoom Ajiyam Seka ak Dembo Bayfos force. I mean through the back door of course, seen flag there. You do ci moom ñëw ñoom Mai Fatty ñoom OJ Jallow ñoom Henry Gomez all of them came and backed him and the same trend continues You continue di def the same thing with President Barrow now liñ defoon 2016 when they got to that podium at uh, Jammeh Hall ku nekk si ñoom jóg taxaw coow wax joxe seen manifesto o wax lu tax ñu war leen a sànnil wala ñoom ñooy waaja lip service mooy li ma leen wax beginning bi service. All these political leaders came and they stood on the podium, spoke, and convinced Gambians lu tax délégué ci nekkoon foofu lu tax ñu war leen a the right candidate to be the president of Gambia and leen sant dara ndekete yoo def nañ seen complot in the wax seen délégué ci ku nekk wax seen délégué président Adama Barrow karta ñu bàyyi cële ne le président Arama Barrow we know mu ah, 270 something votes Khalifa am less than 100 votes dañu koo tooñ mais amin even gaayam yi si boppam sax ñim indi yëpp wala délégué tam yëpp sànni ko karta moom Halifa Sallah with no bias or anything in 2016 li ma leen wax rek ci njëlbeen gi ne ron for presidency yëpp at this minute ñiy ron for presidency yëpp war nañoo peese seen bopp bay xam seen poids poids seen ndax lii position buñ mun a ron la wala luñ mun ron the same thing in 2016 président Adama Barrow ku ko tab tabaloon laaj ko ñi doon contest that election yëpp possibly moom moo la doon wax ne moom mooy list I mean uh, uh, of course qualified person ñoom ñëpp qualified I am nañ the requirements and that is why they met the criteria and requirements and that is why they were contesting at the time at the primaries but su fekkee we are talking about experience su fekkee we are talking about I mean jànga su fekkee we are talking about everything else even personality comportment and demeanor and everything and all of which actually counts all of which counts. Definitely others were more presidential than President Adam And xamal na loolu boppam ñëpp ñu kompoloo def li ñoo def jox ko raayo bi tey la waalo ay la I remember when lawyer Usenu Dabo came to New York during the UN General Assembly where President Barrow am that famous meeting in New York with the diaspora in America Gambian ci jógee fu ne attend meeting Bobo, Yo President Adama Barrow yaag lawyer Ousainou Darboe kañante I remember lawyer Ousainou having a separate meeting with waa UDP in New York mu ne metabako na ñaaw ñaa anente kela bamboti ne leen yéen ñëpp ak nu munti demee yéen a America mun ngeen fi am kayit mun ngeen a am kayiti réew mi ak whatsoever but at the end of the day ay Gambians ngeen Gambia ngeen a Kian gi ngeen jógee Jara gi ngeen jógee Badibu gi ngeen jógee Kombo gi ngeen jógee ci Gambia fa ngeen jógee so lu ngeen yàgga yàgga ci ndox tax ngeen mën a nekk he was saying that for relate ko ak President Adama Barrow ne he could have resigned his position as a member of the UDP and everything because yéen Gambians yi su ngeen ñëwee America fii nii bugg a American citizen da ngeen a renounce seen citizenship amin lu si bari ñu bari si ñu nekk bitim réew président Barrow génnee na am uh, resign na from the UDP but he is still xool beeg everything UDP la nekk jamono jooju diggante baa ngi neex he was the Moses that saved us from Pharaoh ba Ousainou was Mandela at the time diggante bi neexoon mooy woon papaam yéena orienté Papa dom digënté bi neex ba tay ji mom la président baro jël suy wax du tudda turi Ousseynou Dabo lu ci bari suma papa rek la nekk di wax suma papa la nekk di wax fi faté xéju fi ha digënté bi neexoon anything that president Adama baro did ngeen ñoo wax ñuko anything president Adama baro did ngeen endorse ko anything president Adama baro did lu ci nit ñi munti wax ngeen dangop ci kaw nit ñi daanu ci kaw nit ñi yeen wa UDP that's what happened at the time and of course ku ko ñemeñ loo wax na ne moom nekkul politicien ku ko ñemeñ loo biñ ne three years jot na ku génn na ne ku wax ne da ngaa yóbbu Adama amin am am am ah, da forcé mu génn I will see you in court lii yëpp munuñ ko fee fàtte seen diggante dafa neexoon da nga bëggoon mu toog at the time duñ dem ba waxtu wi you change and change flippantly what has gone wrong baro di dunta fo kañ la dem gi dugga be wante wuñ xeju we have records of these things we have records of these things it's rather unfortunate wax leen ak supporters the energy that you guys are spewing is rather unfortunate. Sometimes you listen to some audios of UDP supporters at Linyowa. You'll be surprised at Linyowa, the President Adam Barrow. To some extent, even fabricating lies, both camps are doing this. For the most part, yet lañ gisee ngeen a def Khalifa exchanging words and fighting here and there they mentioned the, I mean, until Yaya Jame came in the game, APRC blamed England a little bit here and there. The fight in Nyar, where the crowd competition will accompany. New Gisco, this particular picture Ngena Gisney has been, I mean, um, um, um, um, um, um, uh, photoshopped and photogrid by UDP supporters. Magis New ñu bari prominent people in the UDP camp Nigel jël nataal actually the ko share ñu photoshop building Bini with the I mean am am am you see. Left bi nii ñu jël ko copy waat ko and you can see exactly li nekk ci kanam ni yëpp ñu indiwaat ko ci gannaaw teg ko comme loolu la li la ñoo complete crowd and we have had am um, président Adama Baro talk about this ne taal leen caméra yi ana journalist yi taal leen caméra yi def leen di def leen di ñikikiki di wax di ree pour ngeen wane taal leen seen caméra yi mu set wécc ngeen wane crowd bi crowd competition ngeen jël ko normalize ko as if this is what we do but dëkk bi kanam I have seen lawyer Ousseynou Dabo not even long ago Bim mu dee ngay base si tooyam bi 21 day tour, five point agenda beyond the Toby in Pase. He mentioned it, mom, I mean, uh, uh, uh, 2021 it's a battle of ideas ak whatsoever Why even suy crowd competition su kii waxee lii kële fan ko fële kii wax lii kële you are not leading this by example it's just the fact you are not leading this by example it's not okay I have seen prominent UDP people suñ away jël nataal I mean in NPP starting a gathering villa, la Lolo. the first few shots that are taken ñu Lolo, the propaganda Lolo, ne NPP gathering villa. we see the same thing Why NPP doing the same thing jël beginning a gathering UDP share Konyam ñoom tamit that is the UDP gathering The photoshop di I, I mean, living the one loolu this is not okay. Crowd competition B is not okay. It's not. You get dégg président Adam Abaro. wax yi moo suma papa matam gida dafa Dina dinaa retire by force Mr. President you are a president I've heard Lawyer Dabo said this to you and I agree with him on there Now you are a president and you should act like a president He toog the label looping the wah nit ñi eye stories wala di wah yenai. every single time defantebi. I mean, some suma papa matta gi dafa des amut amut amut fi or amut whatever internet dafa dafa ko lifin guddi am na am na waxambaane bu ko wax démba rek moo si jógee mu ne am a young man that told him how ma that told him ne some of su guddee foog naa network am bi daf dee them. something along those lines you make these things a joke a president should talk like a president you should behave like a president your comportment your domino your bravado your I mean, I mean, tone of voice, everything should represent you. Alfaya Mukangolti. Anything you say is a policy. Lépp Kadula, wax kàddu kilifte du dara du dul kàddu kilifa amut and therefore it is important that you the president of the country understands this and it doesn't matter who it is Nakufa Montineka, fa munti nekk warta doxalee ni ngaa doxalee ci and the like man lima ma gis Banjul neexuma te lu ma naqari ko wax lu ma ko wax we see both of you sometimes talking with anger bi Ibrahim Ibrahima di ba Ben. I mean attack leen foofu that is something that would have been condemned that is something that should have been condemned. You call them talks, people that were attacked, and we've seen, I mean, these things. Whatever happened there, from what we have seen, evidences that could have been used in court and everywhere. We've seen people attacking. We've seen people hurt them. You should have advocated for the country to maintain decorum. Talk as a statesman. Talk as a statesman. Sakadosu Guinea is a policy. Njit, celebrity, public figure. So waxee nini ñi loo wax jël def ko def ko when you talk people only ask you So leen waxee ne they will not ask you why should I jump or whatever? They will ask you, how high do you want me to jump? So su la nit ñi yaakaaree def la njiit da nga ci jikko ji ci ji ci melo bi ak everything. These tribal sentiments that Yaya Jammeh did, and I will start with that. yàgg naa leen koo and when I say it always the manjaka joke, disclaimer don't pull it with me because it's not going to work. It's not going to work because dama ko am si suma deret loolu laa dee njëkk wax because anybody that says the truth about it Gambia tribalism has been there for the longest tribal politics that have fi war a jeex 2016 when I did the analysis for over 24 hours Magi ngi to ci suma toogu bi ci Gambian Talents Radio suma jabar indil ma añ foofu indil ma fa reer indil ma fa ma on air suma team bi di jóg di dem ñoom jàllo jiri bi nelaw foofu bi ñëw announce result fàtte xeju fi in 2016 that happened here. Beyond disconnect, did not network and we made every effort to make sure we brought you results. You bari CM thing and talk for Gambian talents at the time. I said it. is suma analysis yi tribal politics moo Gambia te ngeen seet regional politics nepotism bi ku that's it. So seet soo ko by default every am um, community for the most part and most dollars feel that they war a Yeah, yeah, yeah. And indeed, he won all the Jola communities. Palasi Poli, the same thing. Ahmad Aglimo, inconsistent in politics, yet Akariam. Consistently, he has maintained that. He has won the Fula communities. He had. When Mama Kandi came, he took charge. It split, of course. But Mama Kande Won, plus the pôle you see si and obviously by default Mandinka settlements and plus yu Mandinka yi by default UDP has been winning this is a fact that we cannot deny in Gambia. In Gambia, it's a fact we cannot deny. It's rather unfortunate that we don't vote based on policies. Sani Winkata, based on ideas, policies a record nit lan la wax ne loolu la leen a defal su ñëwee toog It's rather unfortunate. And this is the thing. Yaga na leen koo wax ne leen xam naa ne su ma waxee ñu commencé jiiñ ma ko nte bari ndiŋol mo mandinkuwol le ti wuluta mandinkuwol le kono nkuluta mandinkuwol le kono nkebayata mandinkuwol le kono nin mandinkol ye kuwo bee ke ŋa mandinka teerol soto ŋa mandinka baaliŋol soto everything I have manjago nieces and nephews sumay jarbaat man ñii Gomez lañ santa sumay jarbaat man ñii Danfa lañ santa ñii amin Seydi lañ santa su may seet ñii ba lañ sant yes from ñi ma bokkal ndey ak ñi ma bokkal gaay rek ñi ma bokkal lala wax de seen jëkkër yi rek suma sista bu ma bokkal papa mu ngi sey Bakary Sankuya gannaaw birkaama foofu ci dëkki pol ci pol iraada suma mag gi ma toppa si kawam moom la doomam yi santa Gomes si kaw kim toppa moom la doomam yi santa Danfa who am I fighting why would I fight a Manjang why would I fight a we need to get over this we need to get over this and put it away because it's not good to you fen duñu yóbbu fen I say it all the time. Yaya Jame's words are wrong. We condemn it in its entirety. Dulum wara wax. Warna seta bu baax. Tuy wax ci party. Yes, you can challenge the policies of yenen party wax ci ñom whatsoever. But mentioning tribe actually is wrong for each of them to do. It doesn't matter who it is. And what we have seen in Gambia is each camp not protect maxate mut su ko kii ñu okay ko kele wax ko muy otherwise and i repeat again we condemn because yaya james is the latest on all the platforms that he said it whether before mu toog la then we talk about udp it's there the same thing lima ma wax baro is the same thing bu good of course rectify nañ ko but bu yàggut lañ fi jël baba dindi jobaate Baba Dinding bu yàggul la fi UDP jël party leader bi si boppam lawyer Ousainou Darboe announcing Baba Dinding ki nga xam was adversely mentioned at the TRRC mu dem appear moom si boppam ku mel ne Mballo Kante nip am ci weenam bi Baba Dinding party leader bi si boppam announce ko wax ne mbokkam la celebrate ko Yes, nañ a lot of people who were dining with Yaya Jammeh who are in the UDP camp yes who came to join UDP whether si CRRC lañ leen mention whether si CRC um, uh, naka jaane commission bi lañ mention or wherever la Commando Mamadou Sabali was advanced mentioned. He appeared on the TRRC, on, on the Astafurla, I mean, Jane Commission multiple times. Multiple times. In fact, as the government white paper has it, there are severe punishments that are put on Sabali for Munyaka Munalige at the government and a lot of things. You buddy moo tiyal ba Ousseynou Ndow kiitami bi mu demee if it is wrong for Dabo for Barrow to do it's wrong for APRC for for for for GDC to do Nima ma ko waxee Mama kande. it's wrong for GDC to do it's wrong for kii to do yes you can claim all we can that they are individual citizens and the like and again to the UDP credit they have um uh, uh, uh, uh taken it back. Bedroya Dabo si boppam génn apologize. We will give that credit. He has gone that far to apologize and revoke the decision and call it regrettable. Warren ko woon a def sax lii ma dégg MC Cham Junior di wax GDC ne waaw ku si amoon opportunité bi ñiy wax ni yëpp that is what he said Then I'm on opportunity, why, ko si amoon doo wax ku si amoon opportunité bi APRC niñ booloo ñu coalesce you will do it this is what MC Cham Junior said their Kanila, their rally bu yàggut nii kerak fan yi passé gis nga nañ leen bàyyi di naxante it doesn't matter whether Yaya Jammeh moo ko wax I mean Socé or anybody lawyer Ousseynou Dabo of the UDP stood at Basse mentioned Sarakhouleyi mentioned Sarakhouleyi ne sànni luñ Barrow Carter and this was wrong it was wrong at the time he did it it cannot be fii wax ko mu baax ñu it's not supposed to be like that suñ buggee réew mi dem kanam dëgga dafa war doesn't matter what side of the aisle is when It's wrong and we condemn it it's not right it's not also right for President I mean, and when Lawyer Dabo did this, like I said, I was extremely busy all this while. right now to do this show because Reumi Film Tolula. Film Tolula. But when he did it, I was going to do a show to talk about it. It was wrong for him to have done it. Limagis ma gis Banjul man neexuma te na ma naqari man dinaa ko Banjul yéen a déglu di ko seetaan fii ci Gambian Talents TV seen mbokk seen xarit seen doomi day Pa Ousmane It's rather unfortunate. li waay di uyoo da koy nuroo ci tur bi ci jikko ji ci jëmm ji ak melo bi wax naa ko ne leen président Adama Barrow ni mo waxee ak li moo def dafa war présidential njiit loo wax kàddu la policy la fi nga ko waxee sa askan bi sa supporters yi yëpp will take it li maa wax nii it's not something that I'm making up it's not something I'm making up again dama leen ne duma leen wan videos yi because time amut Lima analyze is too much yi xew in the past year or so is what I'm talking about playing the videos are going to lengthen this but you know it and you've heard it probably we are in era of technology era of social media era of video ni ko suñ papa Pastef camera waxee yal na yàlla yokk leeram mu ne video wul. weddiwul weddiwul video weddiwul this is just the fact te dëgg duñ ko fi laam-laamee li mu wax si saraxule yi he shouldn't have gone that route to be mentioning tribes it doesn't matter how mad we are people should not vote based on tribes wax naa loolu mu leer Yaya Jammeh should not come Where whether Taylor whether Dembala whether bi moo jël Momodou sabali. I remember bi Yaya Jammeh di ŋàñña soosey Momodou Sabally di def loolu time boobu ñu ngay def a show called Celeb Avenue man maag Jallow Jerry current minister of information ibrahim asila was in the diaspora at the time i remember him calling into that show when we were condemning yaya jamme and things he did when we were condemning him this was before there was this tv we had the gambian talents radio and not tv 2015 2016 it was wrong then for yaya jamme to have done so it is wrong for him to still continue to do so. And it doesn't matter whether Yaya Jamela, Khalifa Salala, Mama Kandala, um, uh, uh, uh, Dr. Ismail Sisela, Lawyer Dabola, it doesn't matter. You should not be putting tribes into your politics. Yen su ko waxee da ngeen ko amplify da ngeen a tax seen nit jóg pour def I condemn all of you for doing it I condemn all of you for doing it of course I will set the rule I've said it. Neduma play videos. I was going to play because I didn't bring all the videos and didn't want to bring all of them because time to fihaj. One video that came to mind when everything is said, am Seconds video, I wanted to condemn that so bad as well. When she was talking to her um, uh, uh, uh Doobo ñaani ja ak place yi nga xam ne fa la Lawyer Darboe jógee naan leen Lawyer Darboe man de kóol noonu lam ko waxee Lawyer Darboe maal di ngoleti seen doom la you don't have to show it you don't have to play it I will set the rule and said as I did with everybody else duma ko play but that's the video right there you are showing the clips you can show the clip but don't play it I set the rules and will keep it fii Ajiem Sek is talking here Manding Kool la wax daf leen lifin Lawyer Darboe seen doom la yéen Dobo. Dóobo Lawyer Darboe seen doom la Albadingia Fassah is rather unfortunate and it's wrong to be doing these things. It doesn't matter who does it, whether it's Ajiem Sek, whether it's Fabakary Tombong Jatta, whether it is Dr. Ismail Assise, whether it's Lawyer Dabo, whether it's Baro, whether it's Dr. Isaac Toure, it doesn't matter who does it. Wrong is wrong and it doesn't matter. So aduna bi yëpp àndoon di def wrong du mos a tax wrong mos right so aduna bi yëpp àndoon di def right du mos a tax right nekkali wrong man li ma gis Banjul neexuma te lu ma naqari so these tribal sentiments maa ngi leen New bàyyi New ñu àgg ci nomination By ngi commencé si tey la last day we have seen the nominations going on New Jale NPP ak ñi nga xam ne réer nañ aji Yalna yi yal na yàlla yokk seen leen yal na yàlla xaare leen ajjana yal yàlla suuf kaw yàlla it's rather unfortunate that NPP when with the grand style that they went. Betiga music and everything. We watch and listen to the speakers. President Barrow, the Luma Fateleko, Rek Molen one minute silence, recognized and mentioned. Everybody else never speak. We are talking about celebration, jubilation, partying after they win. From Nyom Henry Gomez to Nyom Keba Jalo, Nyom everybody who spoke it's rather unfortunate. Feeling Entolo. You could have had your nominations. We know it's a very important project. Elections, these things are typical, even though it's not right. What is not right, it's not right. why Hamna Antan? These things are typical and normal elections. African election. Is it right? Did it? Accident Yegi, people should be careful. That was a good message that President Barrow preached at the end. The Gambians, drivers, Wanyelens and Tanka. These are the type of messages you want to hear you say. Things that are going wrong, the daily welfare and affairs of the people. They go wrong amko. But you just give them one minute silence and use the rest of your speech on Usainu Dabo and responding to Usainu Dabo and calling Usainu Dabo names and caricaturing. You, of course, did mention some of your policies, the things that you have done so far, which is what we expect for you to come and defend your legacy. def naa fi lii ak lii ak lii ak lii su ma ak ak ak that is what your meeting should have focused on. it was very insensitive of you president Adama Barrow pour ngeen taxaw foofu di yaataa yumbe di fecca di di di di sabar di def lu nekk meeting bi jeex ñu ne jeex na léegi ñoo Jaliba ba géej gi fer dañoo ambiance waaye li ma wax ordinary citizen si rek ngeen ibbi seen bot yi ngeen ibbi seen bot yi so many people have died so many people's blood fan la mujjee terewul politicien ci foom ñu continuer de terewul politicien si ñu continuer def li ñoo def nañ leen wax lan lañ leen a defal ci wér gu yaram bi nañ leen wax lan lañ leen a defal ci health care sector bi nañ leen wax ci wàllum jàngu yi lan lañ cee def go to a lot of schools amuñ toogu amuñ table teachers yi ñu ngee démonstrate waxtu bu nekk nurses yi doctors yi ñu ngee démonstrate waxtu bu nekk ñu ngee dem Sénégal pour def foofu different things always always you go going to Senegal. It's rather unfortunate. It's rather unfortunate. pour faju wala abroad faju fi nañ leen wax lan lañ defal ci mi fi nekk gis ngeen fi people are not safe in their um, own houses in their own houses ñëpp xam the security concerns in the country ñëpp war nañ leen a a wax lan lañ leen see defal suñ toogee wàllum mbéykat yi mbéy mi lan lañ leen see defal suñ toogee it should be a war of ideas and not a war of saagante xasante ku ëppale crowd ku gën a magle crowd or something is rather unfortunate ñooñu ñàkk nañ then families, you can never bring them back. Never. Their families can never bring them back. The politicians continue to do what they do. So kufi amsa dom, kufi amsa raka maksayai. mak sa yai, muy support politicians. They better watch what they're doing. Yes, you can cheer them up, but it's yangi jel sa risky bob. we have heard it at every point, Eventually, they move on. die. And we have seen this with Gambians. ne lip service la as they were chanting and dancing at the buffer zone is when the spokesperson of NPP, Sidinja, sent a press release to all the media pour ñu publish Right when they were dancing and chanting is when Sidinja sent a press release, condolence from President Barrow. What an irony. All the media houses published it at the same time. Then ngeen ngeen seet ko. Ngeen all the media houses published the press release that the president is extending condolences. Lii du yëfi So for you that is watching me, you better be careful. Today yo sa bopala dial fi any politician nga set nakala la mujjé. for any politician, joyal for any politician. Na luwa tegu sa ko. Said what more can they do? It's rather unfortunate. Nomination binak. tey mooy last day gis nañ nim mu fa demee yéen ñëpp gëm ngeen joxe seen credentials dégg nañ lu bari ñu ne kii qualify na ki qualify kii ñëw na kii ñëwul ku mel ni Essa Mbay Fall génn na mu dibonko démba si am lifin bi ne ok Sénégalais citizenship lan ko defal moom moom is naka su ko sax lan la lan la ko loolu di defal su ko amoon sax dina ko denounce nangam ak nangam he said a lot of the things I mean and denied that allegation ne he is not a citizen ñaari things yi wax ne mooy tax du qualify mooy loolu beneen bi mooy residency requirement bi muy five years ndax dëkk na ko Gambia for the past five years whether is able to prove that or not ëllëg dina leer ndax IEC nangu nañ nomination am ko nanguwuñ nomination the other people candidates yi nga xam ne ñu ngi wax docteur Ismaila Ceesay and all the others yi nga xam ne seen tur yi feeñ nañ ci as people who potentially don't qualify moom docteur say, ne Swedish citizen la na ne denounce na citizenship bi Swedish is there the proof ne denounce na ko ndax submit na ko to the IEC or whatsoever inshallah all of that is gonna be clear lawyer Ousseynou Dabo ñu ngi wax two things ne conviction am being a xam ne convictoon nañ as I mean um, uh, uh, uh, before ak fire gi nga xam ne dàqa gi nga xam ne président Baro dàqa na ko whether this will disqualify him or not IEC has a judge a referee dinañ hamlo as can be ëllëg bu ko kenn si yéen boote ngeen toppa Gambian Talents TV and we will try to bring you this from the IEC the announcement it is very important for ñu xam ko xam li nga xam ne mooy xew bu leen ko kenn déglul boppa I mean you talk about Bibi you ñu ne British citizen la and of course five year residency Bibi bi baro toogee I mean afterwards several months later si la door a ñëw ak léegi ndax mun na five years te dañ wax ne war ngaa toog juróomi at ci réew mi balaa ngaa mun a qualify pour nekk président ndax Bibi Darboe mit na disqualification obviously moom eventually endorse na président naka endorse na lawyer Ousainou Darboe I mean uh, uh, candidate om so I mean candidate same at this minute Bibi Darboe is not running ñi nga xam ne mention nañ seen tur yëpp uh, foofu ku mel ni docteur Amadou Kanté moom gisuñ am mu dem submit nomination papers I mean fan yi passé moom mi nga xam ne North Carolina fii la nekkoon man maag mom ñoo fi nekkoon and he um, uh, North Carolina. I mean, he was our imam there at the time, Dr. Amadou Kante. He went back to the Gambia and the a year or two ago, announced two years ago, announced that Buganeka um uh, uh, uh, uh, president. I mean, ak ñeneen ñi nga xam ne wax nañ leen yëpp foofu laay tëjee suma kan benn advice rek lay wax ñëpp président Adama Barrow ñu ne defut congress I mean NPP ana seen executive bi defuñ congress moom it ñu ngi wax ne qualified gis nañ Y2K génn wax li leen na laay wax course, the last message there it caught my attention if they disqualified Dabo war in Gambia we will see Saturday see full laa doon waxee si foofu laa doon waxee si waaw kooku mu ne public scrutiny bi pour ñu wax si si li AIC wax ñi nga xam ne submit nañ wala dem nañ joxe seeni aussi lu waay réew mi li mu wax pour nga nekk président da nga war a dëkk ci réew mi lu mu juróomi at juróomi at yu passé you should be resident of the country juróomi at yu passé nekkul ne da nga war a nekk foofu every second every minute every hour every day, 365 days in a week. That is not what it means. Why? Dangawaraneka, I mean, I'm, I'm, I'm a resident of the country. Mungari to but at no giving period should you travel for an extended time Come America fii rek soo fi nekkee resident ganeka nekk permanent resident so toge more than one year again, génn dëkk bi soo ñëwee da ngaa green card the same thing as a resident of the gam as as living citizen Dangawaraneka citizen, um, citizen of the country Dangawaraneka resident Dangawara um high school at least high school certificate war nga ko am high school graduate war nga joxe certificate of character of course jógee ci police yi ah, declare sa assets I mean ah, ah, ñu ngi ko wax is is best practice um um uh, what else um waruloo am conviction ci li loi yi wax ñu ko interpret different ways of course am na ku ma gis mu binda ko ci comments yi ne daabo biñ koo lifin fekk na nekkutoon am minister or nekkut public official or dañ ko pardon and the like um, this is what has been said but then whether daabo la whether bibi daabo la whether keneen ak keneen la these are the requirements yoo have ne IEC teg nañ ko sarta yi nga xam ne teg nañ ko pour candidate yi nga ñu dem certificate of character war nga koo am um, pour pour pour wane ne uh, ñu xam sa jikko te am nga benn criminal record loolu mooy reason indi certificate of character boobu I mean, su fekkee ne wane nga yii nii yëpp ñoom ñëpp kee yi leen IEC wan laaj ñu yóbbu ko ñu wane ko at the end of the day su fekkee ne dañ ah, pare tey what they are gonna do is elect ñu ibbi ko to the public between eight and ten lañ wax am if I get it right dañ koo ibbi pour public bi dem képp si candidate yooyu koo xam ne yow óor na la ne am nga évidence ne kii kat lim fi indi claim nangam ak nangam amut nga mun firnde IEC dinañ ko consider you have to be able to prove it beyond reasonable doubt you have to pour wane ne di wax ci kooku kii lim wax lim fi indi amut daf ne citizen yi Gambia la du citizen wala daf ne benn nationalité la am citizen yi Sweden la citizen yi Amérique la wala citizen yi fii la wala citizen yi fële wala dafa am conviction loi boobu tax na ba mënut a nekk président wala boog ten thousand dollars bi nga xam ne moom la ñoo laajte am which fàtte naa ko wax and it is the reason why ñu ñoo caxat caxatee nga am 26 people ñu waxoon ne ñu dem collect form nomination forms ne dañ bugg a taxaw as president because the bar is set to be so low ten thousand dollars da nga war a am number of registered um, 200 from each region dañ la war a am nominate pour wane ne yow am fii nga naka ay nit ñoo xam ne dañ am voters card ñu am voters card dañ la war a ñëw pour wan la ne la am ñoom endorse nañ la region bi nekk muy juróom-ñaari region yi nekk ci dëkk bi LRR URR NBR amin Western region am ah, Banjul KMC seven region ci dëkk bi yëpp even though waxoon nañ ne diaspora bi mooy eight region unfortunately ñun disqualified nañ disenfranchise nañ ñu ba tax mënuñoo sànni karta waaye service region si ci réew mi bu si nek da nga war a am nit ñoo xam ne dañ am voters card ñu mun a wote ñu la mun a endorse sa candidature nga fay 10000 thousand yi yëpp da nga ko war a meet requirements yi yëpp most of the candidates have most of the documents some of them don't ku si nek si ñoom ñew nañ ñu laaj leen li joxe wuñ ko ñu laaj kele te liñ wax liñ gisoon gaay yi di celebrate fan yii yëpp waa dooya ngee celebrate nañu ne ci ñoo wax ne khalifa Sallah rek moom mit dar requirement a déedéet Alaaji Tabora naka Ibrahima Tabora Mane ñëw na I mean and submitted most of those things campaign itinerary is not a legal requirement si ni ko gars yi waxee mooy ne da nga war a indiwaale sa campaign itinerary tamit ndax campaign baa ngee door si once yëf yi jeex na tomorrow def nañ announcement bi most of the time an IEC is okay with sa campaign itinerary dañ bugg pour soo gisee ñu laajte campaign itinerary dañ bugg pour bu xuloo am xeex wala ñu tesee benn waa euh, war a tese ak waa am Citizen Alliance wala waa doy war a tese waa APRC wala gaanu war a tese waa UDP benn dëkka benn time loolu la gaay di jéem a bañ moo tax ñu ne nañ indi seen campagne itinerary si but it's not a legal requirement ne soo ko amul however doo candidates yëpp biñ ñëwee submit IEC acceptal nañ leen liñ indi décides ñu ne ñu lijjanti ko ñoom ñëpp ñu ne dinañ ko indi diggante boobu ak tey suko ko gaay indee nag ëllëg si suba ñu ibbi ko ne public bi ba ten o'clock mun ngeen a ñëw képp koo xam ne d'accord loo si kenn si candidate yi ne lim wax si kayit yim fi indi dossier yim fi indi remember leen ne ay kayit rek lañ indi de pour proof li gaay di wan su fekkee ne loolu lañ indi d'accord nga si nga wax ne d'accord naa ne kii amin ah, mun naa nekk su fekkee ne d'accord loo nga challenge boromam ne mun ko nekk su ko defee ñu teg ko op I mean, evidence beyond reasonable doubt for IEC disqualify ko ñu disqualify candidate nak boo xam disqualify nañ la maa ngi ñaan di la ñaax seek redress in the courts réew mi dafa am te luwa bi foog ñu respect it doesn't matter who it is nak, whether president Adama Barrow lañ disqualify whether Mama Kandeleng disqualify, whether Dr. Ismail Asiseleng disqualify, my Fatileng disqualify, Alifa Salaleng disqualify, lawyer Usenu Daboleng disqualify, um, uh, uh, Mr. So of Ganoleng disqualify, It doesn't matter who is disqualified. You cannot. Your access supporters yi di def Gambia injustice get jéem the law into your hands you will do injustice to the country. Real me, Ken Momutko. Ken Momutko. It doesn't matter who it is. Who it is. Whether President Barolin disqualified. He is the sitting president. So can disqualify and qualify pour nekk president wala pour He is not to take the law into his hands. He should not use the power of incumbency ne a toog foofu noonu nekk ci boppi nguur gi président moi tax nangam warut court nga war dem Yen ordinary citizens yi am ngeen right ñun citizens pour yóbbu anybody court koo fiil ne dafa def dara loo xam ne àndut ak loi nga dem ñu atela. that is the only option buñ am seeking redress seeking redress nañ dem court each of these political parties nag surtout political parties yu mag social political parties, you they are all entitled. They have a lot of i kàngam am nañ ay daj dëpp am nañ ay nday mbilla am nañ ay ponkal they have lawyers they have educated people they have intellectuals they have people in their parties ñoo xam ne ñu am experience we don't expect any less from any of them kuyarsakuinaak balaa daan ken daan la ku yarsakuy balaa daan Ken daan la kenn si amul right pour the law into your hands no citizen banku dintijee ben doomi réew amul right génn ne dafa jël the law into your hands suñ disqualify sa candidate go to court and challenge it. It's rather unfortunate. And like I said, the President barola Dore, just because yaa nek ci boppi nguur so su IEC ne qualify lo jox nañ la di chance pour nga indi li nga soxla everything you need yen ni nga xamne ne da ngeen wara taxaw under a political party bobu is different sen party bi dafa am lu bari requirement yu bari yu party bi wara satisfied. satisfy before yow sa bop waxuma lolu mang len wax ñi taxaw as am presidential candidate rek requirements presidential candidate dafa ute ak requirements political party soo nekkee political party pour ñu register la si boppam da nga war a am one million dalasis nga am uh, number of ten thousand votes votes that I have to verify again it's the it's been a minute bi ma def programme but ci lu suma xel dox ak li ma and I want to say it ten thousand votes am am voters card registered voters card is what you need pour nga register a political party one million dollars da am structures across the country in every region da am uh, uh, uh, ward am at ward level all the way to the top regional level ward level national level da am branches in all these different at all these different levels at all these different levels you are supposed to have this as a political party Kenyan water hold Congress every two years. These are the requirements for political party qualified pour mun even taxaw under a political party moo tax ngeen gis ñoom Essa Faal ak ñoom um, ñeneen yëpp ñoo xam ne mënuñoo set up seen party yi gis nañ fi bu yàggut Ibrahima Tabora Mane def fi press conference ne mit na requirements yëpp IEC ñu ne voters card yim indi all voters card yi la ñu voters card lañ soxla nangam ak nangam ba tax joxuñ ko mu express disappointment moom a Tabora Mane these are the for a political party so ñu bari dañ taxaw 18 registered political parties lañ am ñu bari si ñoom they have gone to join I mean um, uh, uh, President Adama Barrow they have gone to join President nga am ñoom bii bii daa boog ñeneen ñi ñu decide ne dañoo join am um, uh, lawyer Ousainou Darboe Ganu taxaw on its own Gap taxaw on its own few of them ñi taxaw on their own ñu fa Doya ngi on their own ñoom Mai Fatty GMC are on their own ñoom PPP ak ñeneen yëpp they are on their own so independent candidates yi loolu moo leen ak ñi nga xam ne ñooy président ñooy ñooy taxaw on the party ñiy taxaw on the party li leen IEC di laaj moo gën a gën a bari fuuf fuuf ci liñ war a mit requirements yi ñu war a mit however xaalis bi ñu leen a laaj ak yooyu noonu yëpp as candidates su fekkee ne liñ la laaj sarta yi mut na ko we are challenging the IEC te dinaa wax ak ñoom Alieu Momar Njie 2016 all eyes were on you all eyes were on you win nañ election bi ñoo nga make announcement a lot of mistakes were a mistake was made which cost the country dearly fifty thousand juróom fukki junne Gambian gàddaay génn dëkk bi dem Sénégal because former président Yahya Jammeh concede na defeat nangu na ne Adama Barrow win na élection si kool na ko ndokkale na ko on national television ñëpp gis loolu noonu Gambian su bari ñi voteel Adama Barrow kontaan génn jubilee celebrate one week later mu dinaay ko declare the results null and void fi fàtte xeju fi fàtte xeju fi gis nga loolu lum koos dëkk bi Yahya Jammeh sukkandikoo si loolu ne soo mu ne make mistake boobu you could have made other mistakes this is not a joke te moo tax ma Gambian si let us not be sentimental this is the time for the entire Gambian population to come out képp kuy liggéey rawatina IEC liggéey bu gën a métti ci dëkk bi jamono ji yéen yéen ko all eyes are on you you must be fair and balanced. You must treat every contender, you must treat every candidate equally and give equal opportunity. li ma wax nag media bi you were biased even in the way you handled the media So ngeen amaan anything until few months until a month or two ago when international idea organization president former president in nigeria be good luck jonathan it has to take good luck jonathan to come from nigeria his organization to come and organize a conference two or three day conference with the iec and all stakeholders csos media be you talk for, media be talk wah media be talk wah and of course it was our first samba who raised it at that meet at that at, the, at that session we have briefings on a daily basis and we discuss Lolo Fofo. Why are they being biased in the media houses they are inviting? So, I mean, anything law from the government, Gambians, then Kowaragis, you want to capitalize for every media house to be involved. You cherry pick and choose. Nyan len invite, Zen programs, Then len dot invite, nyan len yon accurate, nyan len dot accurate. This has to be raised at Good Luck Jonathan's forum. If They didn't like the comment, and eventually it triggered for them to change su ngeen bias towards the media ñu ngi leen a ñaax ngeen ñàkk a def loolu this is about life and death this is about the countries at stake for the next five years li ma wax nag du lu ma make up media houses yi ku xam nañ loolu media houses yi xam nañ loolu media chiefs yi teewoon foofu xam nañ li ma wax they mostly agreed that was the case this is not a joke. It's not a joke. So I warn the IEC and I challenge the IEC to be very vigilant and proactive. Be fair and balanced and unbiased in making sure the ñoo def is accurate. So say not ñu ni man kuke kuutee so soo dara dara warul la dara looy so therefore, if IEC you do the right thing, you have nothing to fear. If any of the candidate is qualified, give them what they deserve. Let there be no politics, TNC decision. However, if any candidate is unqualified, dore ko ci président Barrow mi nekk ci boppi nguur dore ko dem ci Halifa Sallah Dr Ismaila Ceesay Mai Fatty Essa Mbye Fall lawyer Usainu Dabo, it doesn't matter who it is amongst them. And I will say this and say it outright. I have stumbled on several posts from the UDP camp. I have stumbled on several posts. And even the last debate that Haruna Drame organized last week, Wednesday, in which he talked about who qualifies as president, lawyer Yangs Dabo, Kumase on Junja Lulu Fufu. Start on the Junja Lulu Fufu again these are clips I would have played lawyer Yangs Dabo commencé woon na di junja loolu foofu ne IEC um, Anaka, uh, wow, be fair I mean uh, indi make sure it's for the sake of peace it doesn't matter if IEC says lawyer Dabo is not qualified he is not qualified to the best of our knowledge as long as they follow due diligence in doing what I said they are the ones that are election act I mean they are the ones responsible. This is their decision to make. If they say it, it doesn't matter who they say it for. And I'm saying this because it is only the UDP camp that I've seen make these comments. A good number of them, including lawyer Jens Dabo, who is one of their lawyers, who is, I mean, a, a, a, a voice in UDP. I've had him, the Junja for the sake of peace we will say it as it is we will say it as it is and then i'm seeing the comments right here it doesn't matter who is disqualified mama kande wo setijan haidara wo esa wo halifa sallah wo president barrow wo mai fati wo dr Ismail sise lawyer usenu wo whoever the iec deems is not qualified there are procedures to follow and not to take the law into your hands Yenak nag ak man mi ak sumay mbokka ak seeni mbokka laay waxal seeni mbokka laay waxal ku fi toog si yéen rey fi sa boppa génn na protest génn na def lii def lele you can do it na tegu si kaw loi na tegu si kaw loi Yenayaka de Capital, anything. This is the reason why I am doing this show today. Tomorrow, let's listen. Let's listen. All these threats is not going to go anywhere. At the end of the day, sanity must prevail. Kuyaka Gambia Tamid, Serko, what happened in Rwanda, what happened in Burundi, what happened in Congo, what happened in South Africa, what happened in Sierra Leone, what happened in Liberia, again in Plus ku fi yu fi tribe yu fi diine wala yu fi politics tax dina jéem a taal dëkk bi wala def naka sudut noonu ñun ñëpp a koo yëg ñun ñëpp a koo yëg picca nga sa kaw xelamang ci suuf am su ma yaayang ci réew mi suma mag yeeg suma rakka su ma yeneen mbokk yi ñu ngi fa we So mune talk definitely. in fact suma team bi ci gambia ñoma providal technical assistance if the country is unstable all of this li ma tok di setan dima deglu don muna am don muna am so many ñaax nak party supporters yep it doesn't matter who it is it doesn't matter who it is and here i will emphasize the udp because i have seen from the udp camp I junja I junja about if lawyer Usain Dabo is disqualified Ken waxut ne dañ ko war disqualify if he satisfies the requirement great good luck to him if he wins the whole country should rally behind him the whole country should rally behind him Why not? whether dafa dañ ko disqualify nomination wala boog élection dafa jot wiinut this is something that we need to pay attention UDP like any other party NPP especially ñoom ñaar ñi nga xam ne ñoo nekk ci boppi nguur gi naka ci boppa bi and we have made this everybody knows that this election is between UDP and NPP unless a miracle happens let's say all other political parties know. but by the look of things wax na leen ci gannaaw ne bët enuwut waaye xam na lu boppa anta both enuwul waaye xam na lu boppa antan by the look of things it's NPP and UDP that as that stand a chance of winning the election unless a miracle happen Yenen party come together Mama Kande ak APRC same coalition bi is is is coming along to SFR join on Mama Kande ak coalition am direct. and this is analysis they have a big chance any other party bu munti join if three or four of the parties because by the look of things, like I said, Mama Kande is still a, a palasam. It's between UDP and MPP. Kura osamoram even with one vote, Yaganye. We are not going to rely on same crowds because you all ran crowds, and jail Sen and same people begin neka, the Yobufuneka. We know this. And then you all have kids among your crowds. We've seen all of these things. We've seen all of these things the same people in Ayubu. So we are not going to rely or base it on the crowds. It is important too. But we all know the politics that all of you guys are playing. All of you. We have seen MPP um, um, uh, uh, uh, living where we see kids. dem back tey my maa I gis ay xale yi ñoo interview suñu sol ay t-shirt MPP su leen interview I see why UDP sharing these things some of the folks sharing these things I see NPP folks sharing some of the UDP folks I mean am um, di wax loolu ay xaleel I've seen it. how they rent crowd We know them, base that crowd we have seen people from different places ñi nyugi joge, ngi jógee Badegu nyugi joge kia. ngi nyugi joge. ñi ne ñu ngi jógee ba Sukuta moto bi paan ci bi all of those videos man I have them from the UDP camp I've had them from tey even doy sax gis naa ay xale yu sol t-shirt yi doy ñu ngi leen interview ñu wax ne ñoom ami nekkuñ xalifa dañ leen jox t-shirt yi rek pour ñu sol ko I have seen this people are and from different camps ñu ngi caricature wante loolu si boppam dafa wrong pour jël ay xale whoever is responsible for it whether it's organized by the party the party militants the supporters rawatina nag su executive wala kanga seen boppa ñoo orchestrate lolo ñoom ñoo ko facilitate ñoom ñoo dem jël ay xale indi leen pour ñooñu lii démba rek am na fu gis si benn lifin I'm not sure how true it is ñu ne benn xale bu jógee Sénégal ne dafa ñëwoon wax nañ turi dëkk bi aronili non ne dafa ñëwoon mu ne moo brodaam a ànda something back moo brodaam ñoo ànda ñëw pour si nomination bi program Senegal Islam, but he has a Gambian um uh, voters card. ci la whether these things are authentic or not the we have seen evidence of kids that look very authentic innocent kids being transported or being brought to these grounds. So whether it's UDP or whether it's President Faro, it comes to the same thing. It's rather unfortunate. So we are not going to base it on the crowds. However, from our look, from the look of things, yéen na nekati nekk ci bopp Mama kande amna na a chance yes su waroon a ñëw jooy nag ak doy possibly the batting turn around but until then it's between the two of you moo tax yéen ñaar dañoo gën a waxal yéen it doesn't matter you are not entitled to be the president President Adama Barrow is not entitled to be the president of Gambia for the next five years that is only going to be determined by the Gambian people and the votes, and this should be clear. He should not be overconfident. He should not feel entitled. Dulo loo xam ne daf ko yellow. yelloo daf yellow. Did it? amut yellow. he deserves it there is nothing like deserving it's left to the Gambian people you decide ñi am voters card bi sànni the same thing with lawyer Ousseynou Dabo you don't deserve to be the president. It's not like Nadanko Yellow. You are entitled, not actually deserve, but entitled. It's not like you are entitled to be the president. That's the right word to use. Whether it's Lawyer Hussein Udabo, whether it is President Adam Abaro, is Mama Kande, is Khalifa Sallah, Ken Siyen, it doesn't matter how much you think you have sacrificed for the country. It doesn't matter how much you think you have done. I mean, for the past five years, for the past 10, 15, 20, 30 years, whether it's Khalifa, whether it's OJ, Jifiyaga, Neka, Nyong, Bradabo, it doesn't matter what you have done. You are just not entitled to be president. The Gambian Chila des Finland Sanile Karta Wasalam. Shinla Sanilub Wasalam. But this is just the fact and the reality. And you have a responsibility to maintain decorum. Dangen am that responsibility. Pour ngeen wax ak seen nit ñi, pour ngeen aide seen nit yi. Pour ngeen aide seen nit yi. Pour ngeen aide seen nit yi. Purgen For you, maintain peace. And this should not be lip service. su àdduna yëpp àndoon nag di def lu bon du mu sa tax lu bon nekk lu baax su àdduna yëpp defoon lu baax du mu sa tax lu bon lu bon nobody nobody nobody is entitled to be president of Gambia unless Gambian people bi jox la unless Gambian people bi jox la and it is rather unfortunate but I'm saying it and I will say it again and will continue to say it starting tomorrow. We hope for the best. We hope that all the candidates who submit their nominations qualify. You qualify you submit. Let them take it in good faith. If they can rally their support behind any other contender, add their weight or behind anybody, you add saying weight behind somebody. That is the next step that they should. You add their weight behind somebody else. And hopefully, Kokusu Toge, that would eventually lead them to qualify in the future to become the president. This is just a fact. It doesn't matter who it is. It doesn't matter who it is. We must take the law into our hands. And this is the type of message that every responsible journalist, media house should be preaching in the country. Any responsible journalist or media house, this is the message that you should be preaching in the country. Any responsible um, party leader, this is the message you should be preaching to the country, to your followers. Any responsible parent, lii nga war a wax nga wax sa media house bu nekk muy xibaar bu nekk message nga am ñu def wala defuñ ko wax ji lu du luñ du luñ segga du luñ bus dañ ko jaar bi ñu wax ko man gis neexuma te ko wax I've been on for two hours twenty five minutes maa ngi leen leen gërëm leen suma team bi ñu ci ground bi I should be joining them for some analysis it's been a minute I didn't do this and that's why I took two hours and 25 minutes to do a show all by myself. It's been a minute. I didn't do this. li xew rek lañ nekk is exactly what should be said by any responsible person tica yi lii lañ war a wax xale ci school si kilifa security bi lii lañ war a wax ñoom tamit ma mosal leen tuuti edda ñu toog jàpp seen jàmbur liggéey te bañ ku leen yuus gis nañ li fi xew jamono Yaya Jammeh so far they have been maintaining decorum they've tried their best to be professional to the best of their ability but they have a responsibility pour actually maintain decorum xam Sen seen brothers ak sisters yi la government come and go the people stay Yaya Jammeh Jawara nekk na fi mu dem Yaya Jammeh nekk na fi dem président Barrow dina demi tey la ëllëg la gannaaw ëllëg so don't do anything that would jeopardize sending diggante ak nit ñi su ngeen demee simi uniforme bi ci kër send ngeen a I seeni jabar yi civilians lañ seen doom civilians lañ seen yaay papa civilians lañ seen mag civilians you are in uniform to serve the country and not an individual it doesn't matter what talk toog as a president you are security officers you have a responsibility to take care of the country Same rule care of the welfare of the citizens and their properties soldats yi seen yoon nekkul Do loolu du seen problème du seen affaire and you should not be involved in it yéen pour aar réew mi against external forces wala waa bitim réew dangers you jógee bitim real. loolu mooy seen responsabilité yéen NIA local ak national intelligence mooy seen rôle mooy SIS bi police yi yéen la nekk seen responsabilité it's unfortunate that we have ECOMEC country and they are the one I mean, running things for the most part for lula la yàlla dogal kon nañ leen maintain décorum yuut si nag affaire bi yéen la réew mi su baaxee seen fiico la su bonee seen fiico la jaay leen bu leen jaay seen karta yi bu leen nangu kenn use leen déglu leen candidates yi bu leen votal kenn based on tribe based on religion based on dëkkandoor mbokka or whatsoever nañ leen vote based on manifesto nañ leen vote based on policy nañ leen vote based on am um, am um, am um, agenda te nañ leen maintain salit bi réew mi su yàqoo ñun la yàqal ñu ngi leen a bëggee di leen gërëm di leen santa yéen doon déglu li ma gis Banjul jógee ci Gambian Talents TV seen mbokk seen xarit Paa Ousmane Diouf nekka loolu leen gannaaw microphone bi ni ma leen ko waxee suma team bi ñu ci ground bi in um, at the IEC headquarters at Barton Hardin Barton Hardin will be there to actually um, cover it live or show you what is happening kàddu gi li si rafet si yàlla la lu si ñaaw si ñun la maa ngi leen a bëggee di leen gërëm di leen santa rek njaam so xeebu la woon ñoon di leen wax lima gis Banjul man lima gis Banjul ma te lu ma naqari dinaa ko wax ñu ngi leen a bëggee di leen gërëm di leen santa ba beneen dem Millions of people them around the world don't get this vaccine here. Coronavirus not something we dey. It not sabi race, it not sabi gender, it not sabi tribe. It don't kill thousands of Africans around the world because it not been get cure. But the good news now, you don't get vaccine. Coronavirus, not all man in business. So tell you people that where you like. On a member say, we all not safe till we all learn safe. Benmar Physiotherapy and Rehabilitation Clinic is the first of its kind in the Ghana. We have inpatient service and outpatient services. Benmar admits patients and they have intensive rehabilitations. That means treatment three times a day for five days from Mondays to Friday and on Fridays they go to their families to spend time with them to have family. Outpatients come on regular appointments probably twice or three times in a week for treatment we treat patients with arthritis, with back pain, stroke patients, fractures or after fracture operation, paralysis of all types, and we do treat both young and old patients. Denmark Physiotherapy gives quality physiotherapy treatments to Gambians because we are qualified physios from different parts of the world.